liggéeyam mi ngi ci ban parti politique. Uh-huh. ak kan moo ko enrôlé. Uh-huh. loolu lépp dafay joué. ba pare bi def mooy am na problème mu encadrement. parce que am na ndaw loo xam te ne bi jàngul. Uh-huh. kooku pour mu xalaat bind projet. day métti ci moom. et puis pour mu am xalaatu créer entreprise. dafay métti ci moom. fi ne bu ñu waxee formation créer entreprise rek am na ñenn ci frange de la jeunesse ñooñu ñu leen jàpp ne ñoo ca war a am accès. kon foofu état dafa war a fekk ñëpp comme que état moo war a am responsabilité jàngal ñëpp te loolu matut école yi amul fépp ñëpp amuñ possibilité jàng mhm. état woowu tamit dafa amal responsabilité fexe ba ndaw lu ci nekk mu fekk la fa nga toll mhm. mu formé la noonu mhm. jàppale noonu encadré la ba nga gën gëm gi am na moom damay dégg ñu bari naan ndaw yi gëmuñu réew mi gëm nañu réew mi gëm nañu réew mi waaye dañoo bëgg teraanga te teraanga ji am na fu mu ko gën a yaakaare. waaw am na fu mu jàpp ni fa la nekk. loolu moo tax dana doon ñaari mbir boo xam benn état am na ci léegi li mu ko wax sànq taxawaay bi. Mhm. ci état du ANPEJ dongu du FONGIP dongu du euh, du li nga xam rek mooy DER. Mhm. am na ay ministères yu bari yu seen loxo laal ci wàll bi dëgg la bokk na ci emploi. Mhm. bokk na ci formation professionnelle. même ministre de la jeunesse yi dañu am wàll ci wàll googu. te mooy fexe bay yombal ndaw ñi. seen ay mbir. ñu mën a am yaakaar bu ko defee ndaw li am jom dina am yaakaar yu réew mu fi toogat a mën a jàpp te loolu lañ ci biir waxtaan wi. ay mhm. possibilités bari am na yoo xam tey bu ci état bu Sénégal awoon. Mhm. mën nañoo trouver solution ci barça barsax bi nga xam tey ay ndaw yu bari ak doon barsax. jërëjëf Modou li nga wax am na solo am na solo lool waaye man damay dellu siwaat rek ci euh, comme li nga njëkk a wax ci responsabilité yi mooy premièrement mooy yow nit ki yow nit ki. man je crois que ni war nga mën a yegg foo xam ne du dangay naan euh, naa jóg génn ci biti seet lu ma ata état war a mën a defal sànq wax nga ba wax ci formation dama lay jox exemple ci jeunes yi nga xam ne ce sont des bawol comme ni ñu koy waxee tey jii boo waxee entreprise am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne entreprise moom mooy da ngay rangale euh, ñaar fukk vingt vingt personnes vingt cinq personnes trente wala ay cinquante personnes loolu mooy tudd entreprise or mille francs sax euh, euh, un million ku ko am war nga mën a am sa entreprise normalement boo xoolee jeunes bool bool yi ni ñu yore yore seen bitik ba yàgg ñu ubbi beneen bitik ba yàgg ñu ubbi beneen bitik wala ñu commencé ci ci def bitik bu mbagg di def ambulant ba yàgg ñu ubbi kanting après ubbiwaat beneen kanting ñooñu di ci liggéey ñooñu di ci liggéey yëpp loolu mooy wane ne ñoom yor nañ entreprise c'est-à-dire c'est pas entreprise mm-hmm. formelle c'est informel la gaa mais mën nañ ko tuddee entreprise c'est informel mais ni mu mm-hmm. demee ak euh, li nga xam ne mooy sookul entreprise déjà moom am na ko donc kon entreprise la loolu mm-hmm. te loolu je crois que ni kenn ku nekk ci ñun war na mën a xool nu muy mënee mën defalal boppam dina yegg beneen niveau bu nga xam ne nag boobaa dafay soxla ndim loxo état mais pour le moment un début je crois que nit nit ku nekk war nga mën a xool ci sa wàllu bopp xool sa capacité ak sa ak say moyens de bord yi nga xam ne moo moo teew ci sa sa kanam lan nga ci war a mën a defal sa bopp tàmbali ci sa bopp parce que boo seetlee. li nga mm-hmm. xam ne moom la sunu yaay di dajalee sunu yaay dañuy bokk ay natt. ñii te toggi tontine ñii jaay seen takkaay jox ko seeni doom je crois que ne war na mën a jege ay cinq 500000 donc cinq 500000 mille ko yore Sénégal war nga ci mën a liggéey jamono bi nga xam ne da ngay jël mille def ko ci billet avion wala wala ci ay visa wala 3 millions bokkul ak jamono bi léegi je crois am na beneen aussi responsabilité bi nga xam ne aussi. ñun doomi réew mi nga xam ne ñun ñoo génn Sénégal tamit am nañ ci responsabilité te boobu xam naa ci lay ci laay mujjee laaj bi parce que ñun tamit am nañ ci responsabilité parce que am na ñun aussi nun leen jaayee tukki bi maanaam nu ñu leen ko présenté noo xam ne ah, réalité loolu kon am na ñun tamit am nañ ci benn responsabilité donc loolu damay ñëw léegi ci ci ci sa njóogu bu fekkee mu ngi ci ligne bi moom njóogu way way way way Ndiogou na nga def. way ça va alhamdulilah alhamdulilah yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi yow defe naa yaa ngi doon topp ci commencement bi ak léegi li ñuy laaj rek mooy li nga xam ne tey. Mhm. Euh, mooy mooy mooy li tax jeunesse sénégalaise bi songu géej gi rek te ne duñ dëpp nga gis ci koo xam ne ah dina dina dina dem ñaari yoon ñetti yoon boo ko laajee mun la man sax bu ma gisaatee gaal demaat yi donc lan moo uh-huh. waral loolu état bi yow mi nga xam ne yow yaa bokk ci état bi mën naa wax loolu parce que yow ci Argentine bi yow yaa fi teewal APR APR mooy parti bi ngi nekk ci nguur gi parti président Macky Sall ñu ngi koy nuyu baax uh-huh. moom tamit di ko ñaanal yàlla yàlla yore fooy wafal koy yan bi waaye yow yow mi nga xam ne yow xëy na sa loxo mu ngi limb ci biir parti bi yow lan nga jàpp ne ah moom mooy responsabilité jeune bi responsabilité euh, parents yi ak responsabilité état. voilà merci beaucoup d' abord euh, asalaamaaleykum di nuyu vraiment ñu nekk ci plateau bi. Ah, ah, jërëjëf euh, di kontaan vraiment ci bokk ñoom plateau bi. jërëjëf di nuyu waa Touba TV. Ah, di sargal ña nekk di liggéey parce que. def nañ initiative initiative bu am solo surtout ci Amérique latine bi nga xamante ni si mhm. euh, vraiment euh, diaspora bi uh-huh. euh, Amérique latine nekkoon na loo xamante ni si ñu bari xamuñu mhm. vraiment li nga xamante ni si moom mooy réalité sénégalais ya fay dund et que à travers maintenant ces types de médias virtuels mhm. vraiment maintenant on peut dire que les Sénégalais se sont imprégnés de, de, de l'existence des euh, de, la communauté sénégalaise en Amérique latine uh -huh. et que ñu ngi commencé di xam euh, quand même l'univers de l'Amérique latine et grâce à ces médias virtuels si. donc je vous remercie euh, beaucoup uh-huh. di leen ñaanal rek yàlla jëmale leen ca kanam jërëjëf donc voilà euh, je crois que le, le, le tous les points sont importants uh-huh. mais aussi ce point qui est euh, euh, vraiment mbënd mi Uh-huh. Euh, nekk loo xamante ni si effectivement comme ni ko sama euh, collègue waxe uh-huh. euh, phénomène la boo xamante ne si pratiquement africain. Mm-hmm. mais plus sensiblement au niveau du Sénégal. waaw parce que Sénégal mm-hmm. phénomène bi na mu fa demee actuellement. Mm-hmm. c'est inexplicable vraiment. Hmm? donc voilà donc loolu yëpp ñu koy ñu koy ñaawlu di ko naqarlu. parce que aussi suñuy frère suñuy sœur. vraiment ñoo ci am ay tolof tolof déjà euh, femme boobu suma suma collègue bi tàgge loolu doy na waar doy na waar wax dëgg yàlla jigéen ñi waaw kon donc jigéen ñi sax léegi di ci soobu jigéen voilà voilà d'ailleurs image yi image yi ngay gis rek ci ci ci réseaux sociaux bi yow en tant que sénégalais sax boo koy xool vraiment dootoo bëgg a sa existence dafay doy waar daal da ngay tiit da ngay voilà voilà euh, mu nekk loo xam ni mu nekk nag loo xam ni. Uh-huh. Euh, je crois que képp kuy sénégalais rek. Uh-huh. war na la incombe. dëgg la képp kuy sénégalais. Uh-huh. Euh, maintenant ñi nekk ci euh, premier rang bi ñi mu war a incombe. je crois que ce sont pas les victimes parce que les victimes moom. sont des victimes am na lu nu ancré seen bopp. te loolu la ñu gëm. bon ñi nga xamante ni ñoo ci war a impliqué wu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ce sont c'est l'État c'est mhm. aussi la diaspora sénégalaise dëgg la parce que di côté des parent sax foofu duma ca dem parce que la mhm. xew Sénégal xam ngeen ko xam nga à chaque fois nit ñi dañuy nekk ci médias yi di wax mhm. mais dañuy bàyyi les réalité dañuy bàyyi réalité bi fële di wax ci li nga xamante ni si rek moom mooy le bruit bo yow lan mooy réalité bi réalité bi am Sénégal mooy euh, y a y a y un retrait des parents. Uh par rapport à leur à leur à à, à leur euh, progéniture. dañuy teel a démissionné. les parents dañu teel a démissionné. Uh-huh. tey jii boo jëloon cent familles. Uh-huh. les les les les quatre vingt les quatre vingt ay familles lan yoo xamante ni si. Euh, la progéniture du ñu am sax yenn relation yi avec les parents. dëgg la c'est vrai. ça une réalité. Mm-hmm. Euh, peut-être les familles un peu nanti rek ñoom ngay gis. Mm-hmm. mu mu ñu comme ñu ñu respecté soit peu li nga xamante ni si moom mooy clause familiale. Mm-hmm. donc ñooñu dama leen di négliger de euh, euh, teg leen fële. jël li nga xamante ni si mooy état bi. ak ñun ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci diaspora bi. ñoo ci war a jug. parce que ñee moom déjà affaire bi ëpp na leen doole. donc ni ciy jóge mooy. am euh, je crois que euh, Modou wax na ko léegi. ñun ñu nekk ci diaspora bi. Uh-huh. mais man d'accord naa ne d'accord naa ne lu ci ëpp ci li nga xamante ni si moom la les jeunes yi nekk Sénégal tax ñu ancré wu li ñu ancré seen bopp. Uh-huh. lu ci ëpp ci ñun la jóge waaw parce que am nañ ci responsabilité mooy li ma wax léegi rek. am nañ ci responsabilité bu mat sëkk. am nañ ci responsabilité bu rëy. Mhm. parce que. dafa am benn panel bu ma bokk benn waaye di fa expliquer. waaw. Euh, Sénégalais yi ni ni yenn Sénégalais yi ni ñuy dundee au niveau d'Italie. waaw. mu ni ñu ci bari. dimanche ba dimanche. pour pour pour ñàkk am ci lu nu jàpp pour ñàkk am ci lu nu jàpp. Uh-huh. dimanche ba dimanche. Uh-huh. la ñuy dem au niveau des cimetières. waaw à la porte des cimetières. Uh-huh. xam nga tubaab yi ñoom dañoo respecter cimetière. waaw chaque dimanche tubaab yi dañuy dem di visiter di ziare seeni mbokk. waaw. maintenant ce phénomène là c'est ce qui existe en Italie des sénégalais rang ci buntu cimetière yi di quémander. Mm-hmm. di quémander. xam nga. Euh, comme léegi li ma lay li ma lay dolli foofu rek. mooy toujours li may uh-huh. li may wax rek mooy responsabilité uh-huh. la responsabilité est partage mais bu ñuy uh-huh. wax responsabilité partagée i trois quatre pàcc la mooy li ma wax léegi ci kenn ku ne nit ki yow am personne say parents sànq wax nga léegi ne parents yi aussi dañu teel a démissionné mais man pour man. Hmm. parents yi ñoom ñooy hmm. pression bu mag bi. bu ñu waxee dëgg la des parents ñoom ñoo ñuy teg pression. waaw xam nga tam ci biir kër gi lay commencé. xam nga waaw moo tax ma ne la moo tax ma ne la. Mm-hmm. Euh, dafa am réalité yoo xamante ni si il faut que ñu koy jël en considération di ci sukkandiku. Mm-hmm. pour essayer de d'amener une solution au problème. bokk na ci situation sociale boobu nga xam ni moo am Sénégal. muy réalité boo xam ni moom la ñuy dund au niveau di Sénégal. dëgg la. que bu fekkente ni yow da nga nekk ci kër amuloo. ña nga xamante ni si ñoo la waroon di di defal ak yooyu di la pousser sax pour nga am. d'une manière d'une manière positive. d'une manière objective. au contraire dañuy utiliser sa situation bi nga nekk yow. pour di la décourager. si si di la di la traiter néant. voilà xam nga xam nga parent bi def loolu. xam nga kooku moom doo moo tax ma ne kooku du ma ko jël en considération ci problème bi comme loolu am na te mm-hmm. c'est une tâche d'huile au niveau du Sénégal et que les jeunes aussi vraiment. Euh, il y beaucoup de choses bu nu génnee ci mbedd mi aussi loo xamante ne si aussi. Uh-huh. Euh, mënu leen a jox loo xamante ni si. Hmm. Euh, la nga xamante ni si rank rank rank rancune ba ñuy dund seen biir kër. Hmm. Euh, buñ génnee ci mbedd mi dinañu mën a am. loo xamante ni si dina atténuer loolu bu ko defee hmm. euh, bu ko defee ba exploit bu njëkk a gis rek yaa ngi dégg waaw dañ cay daal di soobu avec les yeux fermés si ci loolu lay ci loolu lay jëlaatee moo moo Modou Mbacké Modou Mbacké yaa ngi dégg sànq li njoogu wax léegi dem na ba mhm. wax ne responsabilité premièrement bi mu ngi ci biir kër gi ci parent yi ci la social la la situation économique bi nga xam ne moo xew ci biir kër yi ak yow bi nga xam ne yaay mhm. jeune toll ci war a faj gàcce mu munoo sa parents yi nuñ lay nuñ lay traité nuñ lay nuñ lay jàppee nuñ lay xoolee yow noo noo gisee li njoogu wax Modou jàpp nga ne yéen ñaar mën ngeen cee mhm. bokk idée bu ngeen xalaatee Modou Mbacké waaw benn côté. dana am fu ñu bokkee maak moom xalaat bi. mais euh, na ñu xool nañu xool tamit lu waral. lu waral parent bi ñu xool doomam boobu bët ku sañoon tey ku sañoon tey boo amee sa doom. ba mu sol saw dàll mu yem ci moom mu sol sa yére mu yem ci moom. sa doom ba mu taxaw la. tey nañu xool. la plupart jeunes yi dem ci gaal yi. wala jël désert bi tukki. boo xoolee seen famille. dañoo néew doole. si. waaw la plupart. gisoo ci ku papaam nekk milliardaire wala millionnaire ah, mu jër gaal gi. Mhm. non koo ci gis tey koo ci gis tey mu dugg ci gaal rek lu mu lay wax mooy damaa bàyyi sama yaay dama bàyyi sama papam maa ko war a defal lii maa ko war a defal laa. nga xam ne kon kooku. Mhm. Euh, situation bi jàpp ay parents. ba tax ñu gis loolu. Mhm. ay parents yi tamit dañuy bëgg di ko pour des am du ñëpp ah, du ñëpp. Uh-huh. mais de au delà au delà de la problème bi nga xam tey am na ci famille bi. Uh-huh. loolu dañoo war a dem au fond xam lu ko ñu lan la mooy la pauvreté. dëgg la. yow ak moom moomu tey nga xam te ni bii njóogu ma ko luy bu baax di rafetlu ni mu analyser situation bi. mais moom mi ngi bokk xam nga après parti au pouvoir. ah mm-hmm. euh, lan yan condition la jógee Sénégal ñëw Europe. effectivement bu amoon bu amoon bu amoon la gënal ndax da nga réew mi non non. dëgg la est ce que góor fekk bu amoon li mu gënal bu amoon li ko gënal du toog jege njabootam. amul benn sénégalais boo gis. Mhm. mu génn réew mi ñëw bitim réew. moo xam Italie Argentine la wala Brésil la wala mi ngi États-Unis xamal ni jom moo ko fa yóbbu. dëgg la jom moo ko fa yóbbu ngir mën a xool. Mhm. ñeneen ñi nga xam ñoo dëkkandoo ci seen koñ. Mhm. muy gis seen kër nekk euh, kër goo xam te ni tey par rapport ak koñ bi kër googu daa mu koy xàmmee mhm. mu ni kon dina am jom ngir mhm. jële fi lii loolu nag mooy tax ñuy engagé wu di dem léegi nag bu mu jógee ci problème famille bi jógee ci problème parents yi xam naa ni bu mu tax état bi ni moom lii problème mu parents yi la kon nañ ko bàyyee parents yi noonu non diggante parents yi ak xale yi état muy seen kilifa ñoom ñëpp boo leen boole. dafa am lu aaji xool xam nga tey bu ñëwee Europe Italie wala France. Mhm. ñoom soixante nangam pour cent seen population dund ay màgget maanaam te boo jël. Mhm. lu ëpp juróom-benn fukk dund ay màgget. dëgg la la bu dee Sénégal nag. Mhm. c' est contraire Sénégal téeméeri boo jël juróom-benn fukk baag nangam dund ay ndaw. ay ndaw lañu te ndaw ñooñu nag il ñu am ci luñ jàpp. maanaam ndaw yooyu Sénégal am. Mhm. fi mu toll nii lii nii bu continuer mhm. d'ici vingt ans lu gën a métti muy amat. parce que macha allah Sénégal euh, ku ci ne. yaa ngi bëgg am njaboot. waaw. Modou directement. ci ma foofu rek ma ma daaneel foofu ma foofu. waaw waaw waaw waaw non euh, non est-ce que mën na maa continuer parce que man. Euh, merci Modou. non waxtaan la. non non da nga waxtaan la parce que sànq dama euh. déglu woon dañu pare baal ma kii après nga ñëwaat waxtaan la quoi dialogue la. waaw léegi su oh, ma toll woon sànq. pour uh-huh. pour répondre question boobu. mooy bàyyi bàyyi euh, bàyyi après danaa la jël ko mu développé. Hmm. Uh-huh. mooy tey que ndaw ñi macha allah ñu ngi fi. Uh-huh. mais bu romb dee njaboot bi ak xale bi nañu xool nag yan matukaay la suñu état jël. Mm-hmm. yan matukaay suñu état jël ci ay politique publique yoo xam te ne bi mooy mën a tax ba mu accompagne accompagner ndaw yi hmm. te xam nga li ndaw yi tukki tey hmm. li jàpp waajuram li jàpp papaam ba amul doole moo hmm. jàpp ndaw li parce que da nga juddoo ci kër ba màgg sa papa di ñëw doole nga juddoo ci kër gi ba am vingt en vingt cinq ans trente ans di néew doole danga naan non du continuer lii li sama papa nekkee woon kay ma wax war a jële waaye man du ma continuer encore nekkaat sama papa situation bi mel mu dund ci na kon est-ce que état nag ñoo war a commencé xool loolu dafa judd dañoo judd rek retraité un jeune amul sax vingt cinq ans nee na ñoom dañoo judd rek retraité. voilà continuer lu waral loolu. Mhm. voilà pour waxal la kon loolu. suñu état nag ñu war a xool xam ne ñun. Mhm. dañoo nekk population bu jeune. population bu jeune nag dafa war a am loo koy accompagner. Mhm. ndax avantage la inconvénient la ñu tey. Mhm. ndaw ñuy Sénégal am. buñ leen toppatoo teg ay mesures yu ko accompagner ba ndaw li di am yaakaar ci réewam ndaw li di gis lu mën a jàpp ci réewam. ndaw yooyu nag bu fekkente ni am nga ci avantage mooy ëllëg sam koom-koom day dox. waaye bu fekkente ni ndaw yi ñu continuer nii macha allah doon ay ndaw te état bi tegul ay politique yu mhm. boole lépp teg muy sax ba xale bi gis nii sama réew am na avenir mhm. naa ci mën a jàpp loolu bomb la boo xamante ni bi bomb social la bopp ñu ci war taxaw beneen bi mooy wax na ko sàng mhm. moom njuumu tey bu ñu xoolee dëgg dëgg dëgg gis ne am na kuy tukki xëy na mais lan fay nekk xëy na ay mbokkam xamuñu ko mais am na au moins sac boo xam tey bu ñëwee Sénégal. Hmm. dana def dara comme teranga. waaw voilà fi tey li ngay daj Sénégal. Hmm. am na ndaw loo xam tey eh, exemple mu jox exemple rek. Eh, bari na ñu nekk ci ay tool eh, di bay ci Espagne wala ñuy bay ci Italie. te pourtant Sénégal fi ay béykat lañu uh-huh. hmm. mais kon nga xam ni Sénégalais bi ba ñu la bay mais su bayee ba noppi ndax la muy bay mën na caa dund c'est ça le problème. moo tax ma ne la foofu kon su suñu état ñoo war a teg ay de compagnement yoo xam tey ca àll ba lay tàmbalee maanaam tey politique de centralisation boo xam tey man nit nga xam te ne bii maa nga dëkk ca mbaqiis wala mu dëkk ca mbege ca xelkoom hmm? may xam ni fii état fekk na mu fa ak la mu fa war a fekkee mhm. mais le moment où suñu ay autorité ku ci feebar mhm. dagg billet fajoo bitim réew ku sa soxna wan lor nga dem wasi la bitim réew ngir mu am nationalité réew mooma ah ku ci dem vacance dem tudda ko bitim réew ci vacance foofa mais kon kooku autorité bi bin dénk réew mi ëllëg moom sax moo gën a wane ni kon Afrique dara Sénégal dara Europe mooy dara parce que yaa ko jàngal ndaw ñi waaw waaw voilà daal loo xamante ni bi responsabilité bi man gis naa pare am nañ ci wàll ndaw am ci wàll mais man état mi boole ñëpp jaboote mhm. hmm? moom laay dóor li ma koy dóor ngir mu xam ni ma responsable ndax mënuma fekk ñaari xale yu xeex mm. ma ne xale yi kat ñoom ñaar ñoom dañoo réew waaye man miy mag marom leen jàll non non ah, état moo jaboote papa yi jaboote yaay jaboote xale yi kon moom état nag moo war a booy loolu lépp nag di jënti ko kon moo ah, su ma ni déggee bu baax <laughs> état moo fayir moo fayir ci politique de jeunesse bi mu waroon a teg su ma la déggee bu baax depuis 1960 ba léegi depuis 1960 ba léegi. état bon est-ce que état mm-hmm. état pour Ndiogou. Ndiogou xam naa. Ndiogou Ndiogou yaay état. waay waay Ndiogou yow loolu dañ lay interpeller directement. Mm-hmm. yow mi nga xam ne yaa ne ci état bi. non nekkuma ci état Ndiogou Ndiogou Ndiogou Modou Modou la Ndiogou nekkul ci état. nekkul ci état yow yaa jàppale yaa jàppale état eh, taxaw. Eh, Modou. yow yaa maye eh, ko. Ndiogou Ndiogou bul daw. effectivement donc Ndiogou. Ndiogou nekkul ci état. yow yaa mais mën naa défendre état de par sa politique. waaw moo tax ñu invité la. de par sa politique li nga xam ne yow gis nga ne état mu ngi koy def lu concret. voilà. voilà c'est-à-dire dama commencé woon di développer wow. j'ai j'ai à citer uh-huh. les responsabilités yemoon ci benn parti mais j'ai pas dit ni dindiwuma responsabilité yi dindiwuma ci état ak seeguma woon ci état. aha booy na ba léegi ñu ngi lay déglu kon ci état bi lan parce que. dégg nga fii fii fii jeexale. Euh, mu am réew. am réew phénomène mënu faa am. Mhm. te état bi amu ci responsabilité. non man du ma d' accord. soo waxee phénomène. parce que lii yàgg na de plus de dix ans la. effectivement. kon lii du phénomène effectivement moom déggoo la wax moom nee na. Mhm. depuis mille neuf cent soixante ba léegi. non non non la politique immigration clandestine bi. waaw immigration clandestine bi yàgg yàgg na. yàgg na mais dafa gën a am ampleur. fait dafa gën a am ampleur au niveau di Sénégal. loolu moo ci bees. bu njëkk bu njëkk boo déggaan benn gaal. danga toog ay weer du dëgg. waaw maintenant loolu amul et puis gaal yi nga daan dégg. Euh, da ngay dégg beaucoup de nationalité africaine yu ca ne. waaw. maintenant li nu constaté. ci weer wi mooy da ngay gisandoo trois plusieurs gaal ñépp nekk ay sénégalais. waaw kon kay léegi xam nga ne léegi kon nangu na ne yow lii du phénomène. non phénomène la au niveau du Sénégal ça devient actuellement ça devient une réalité. une réalité non waaw effectivement phénomène la parce que li tax mu nekk phénomène mooy uh-huh. eh, bu ci un grand nombre jugoo jigéen di ko defandoo c'est mm-hmm. un phénomène joogu eh, wuyu waaw xoolal gis nga fii ah yow boo boo ñëwee fii di wax ne lii phénomène la man duma ci mën a d'accord kiy déglu tamit du ci mën a d'accord phénomène ñëpp xam nañ le moom phénomène c'est que cela signifie phénomène qu'est-ce que ça signifie mooy benn affaire boo xam ne dafa jékki yéegi rek ça ça sort de nulle part lu jaaxal ñëpp la mais lii bu fekkente ne sa sort de nulle part lu ñëw la après lu lu lu lu gaaw a dem lay doon c'est ça qu'on appelle mais lii ça perdure mais effectivement mais mais mu am nii euh, Actuellement, ça fait plus de dix ans que ça Donc, non, je dis, je dis, je dis, je dis. ça fait plus de dix ans mu am mais dama ni la ah. nii mu amee nii ampleur bi nii mu toll nii ah. exclusivement au Sénégal c'est un phénomène bon nañ la ko nañ la ko amul problème <laughs> waaw nangul ma ko ñu continuer voilà euh, rien ne rien rien ne vient au hasard rien ne vient au ah. hasard loolu dëgg moo tax ñu ci ñu koy ñu ciy jéem a joxe des explications. mais ñëwal yow responsabilité état donc responsabilité état. le rôle de l' état. est mu aménager politique publique boo xam ni. Mhm. dina mën a permettre à ces franges de population. pour ñu accéder ci li nga xamante ni si moom mooy les nécessités primaires. Mhm. ak l'emploi pour les jeunes du dëgg. dëgg la waaw. donc état dafay facilité dafay faciliter. Mhm. facilitation facilitation boobu mooy. mu mhm. teg ay canevas. moom euh, du wax na ko euh, euh, par rapport à la décentralisation. dëgg gis ngeen le programme du PIDC. Mm -hmm. lu tax le président Macky Sall tànn ko c'est pour que décentralisation boobu nekk loo xamante ni si lu effective lay doon daj territoire Sénégal yépp du dëgg. waaw mais est-ce que daj ba tax na ngeen di dégg yenn programme yi muy dem ba ci gox-goxaan yi. Uh-huh. bon euh, état les les agences de financement là. Uh-huh. gis ngeen li mu ci teg. leen ko lii jigéen ñi lii jeunes yi et cetera et cetera ba mm-hmm. boole ci jaspora bi. Mm-hmm. yooyu yëpp c'est des carnavals yoo xamante ni si day faciliter ki nga xamante ni si moom mooy l'acteur muy muy muy la population le le le le euh, le citoyen. Mm-hmm. pour que moom mu dox jëm ca pour mën a vraiment réussir du dëkk. mais loolu mooy rôle de l'État. et que non non il faut me laisser terminer. allez-y allez-y je t'en prie je vous domaine boobu li ci jéego yi ci la président Macky Sall teg de par son programme. Mhm. muy phase un pays euh, euh, euh, PSE. Mhm. ak phase deux bii nga xamante ne si commencé na programme yi mu ci def yépp pour gunge population sénégalaise la ci France yépp pour que vraiment ñu mën a gis seen bopp ci li nga xamante ne si moom mooy les politiques publiques de l'État. bon les jeunes. Uh-huh. y a un y a un y quelque chose qui est réalité nan ko wax. Hmm. les jeunes euh, comme ni ko waxee que ni amuñu euh, euh, formation kenn eddewul leen. wutalu leen ay ay canaux de formation ay. ay nu ñu leen accompagner ba ñu mën a. effectivement effectivement yooyu yëpp yooyu yëpp canaux de formation yàgg yooyu yëpp am na. ce qui se passe. Hmm. ce qui se passe. Uh-huh. mooy. les autorités locales. Mm. les autorités locales. Ah. xam nga tey sànq cité nga ba cité ay gox yu yu yu sori. waaw mais gox yu sori yooyu aussi am na ay autorités locales. et que programme yi nga xamante ni si euh, nguur gi teg na ko àgg na ci li nga xamante ni si mooy gox yooyu donc autorités locale ya nekk foofu. Hmm. ñoo aussi ñoo war di accompagner li nga xamante ni si moom mooy seen population locale di leen. informé ci li nga xamante ni si kat moom mooy les perspective de l'État yu nga xam ne indi ñëw na ba foofu pour imprégner leen ci ñoom ñu mën a comprendre mën a dox jëm ci loolu loolu dafa joxe. ñoogu au niveau des autorités locales. soo waxee waaye soo waxee euh, ñi nga xam ne par exemple ñi nga bëgg a wax ñi nga insinuer mooy mooy les préfets les sous-préfets les gouverneurs ñooñu autorités locales yooyu ñan ñoo leen fii teg. c'est le ministère de l'intérieur non le ministère de l'intérieur kan moo ko fi teg le président de la république donc c'est le président de la république qui définit la son politique moom mooy teg les hommes qu'il faut à la place qu'il faut normalement noonu la waroon demee non non non non non le préfet le gouverneur yooyu yëpp ñooñu danoo am lijaasa yoo xamante ni si moo leen mën a permettre ñu briguer ces fonctions là c'est des fonctionnaires est-ce que xam nga effectivement ils sont nommés par décret mais on ne nomme pas un Diogo Samb qui n'est pas administrateur civil. Si, on le nomme pas gouverneur. par décret par le président non, de la tous les gouverneurs tous les préfets tous les sous-préfets. même bu fekkente ni ils sont nommés par décret à travers le ministère de l'intérieur mais tamit ministère de l'intérieur day sukkandiku ci seen carrière tous ils sont tous des administrateurs civils si de, de sont de, vrai ou faux. tous des administrateurs civils loolu xam nañ ko. civil les administrateurs civils c'est pas mais mais est-ce que loolu mais est mooy débat bi est-ce loolu mooy débat bi ci gouverneur bi nomination li jaatam. non non non non est-ce que est-ce que est-ce que sëñ Diagne boo toppee njóogu. du uh-huh. dévier su fi nga nekkoon comme idée la ko dévier. du ma ko eh, dévier du ma ko dévier il faut ma laisser il faut ma laisser quand laal. fi nga xamante ni si moom ngeen di wax muy ci gouvernement bi parce que loolu yëpp ci gouvernement bi la. du loolu yëpp ci normalement ci responsabilité gouvernement bi ci la war a bokk. mais yow da nga pour dire vrai de la Verda. Eh, yow njoogul da nga fee waxagul lu convaincre kenn parce que soo toogee fii di wax ne ah eh, jeune bi nga xam ne mooy toog di la déglu yow nga xam ne bërki démb la jóge ci gaal gi ngay wax ay ay ay programme je te eh, donne un exemple typique gouvernement bi teg na ko wuy ma wuy ma li ma la bëggoon a wax foofu li ma la bëggoon a wax foofu li ma bëggoon a wane foofu mooy hmm. euh, malgré malgré waaw li nga xam canevas yi nga xam ni yépp politique publique son excellence le président Macky Sall teg na ko ci programme am. Uh-huh. ba léegi nous sentons que ni les jeunes particulièrement les jeunes. Uh-huh. vraiment amuñu accès ci loolu par manque quand même de communication loolu ñun xam nañ ko. manque de communication boo ko waxee yow yaa ngi indi say responsabilités yoo xam ne day de mais mais effectivement mais effectivement moi pas dit que l'État n'est pas responsable encore une fois c'est mais j'ai pas dit que l'État n'est pas responsable ah mais je t'ai dit que canevas mhm. yi état war a teg mi ngi koy teg mais achève achèvement ya a war a am mhm. ak cible bi voilà voilà c'est ça le problème xam nga Boun Abdallah Dionne mës na ko wax mhm. mu ne je crois que benn acte bu ñu doon def géejawaay. Hmm. biñ ko laajee ci par problème euh, euh, euh, offre ak demand bi hmm. am ci emploi. Hmm. mu ni le Sénégal li fi am mooy la demande ne ne ne répond pas à l'offre du plan qualité. est-ce que dégg nga wax bi. waaw ma ah, loolu nag. waaw ah, déglu rek maa ne loolu loolu nag bu amee. Uh-huh. c' est l' état qui a qui qui est parce que tout simplement. waaw léegi loolu loolu leer na kon yow li leer na. leer na nañ ci bopp képp ku toog di. déglu déglu rek man man c' est pas parce que dama rek débat kenn ku ne dafay am. voilà temps de parole. donc moi je dis que moi je jël je dis que donc. baal ma baal bi offre bi dafa mm-hmm. wara a méngóog la mm-hmm. demande. bu ko méngoowul it à cent pour cent au uh-huh. moins à quatre vingt pour cent mu méngoog la demande mais qu'est-ce qu'on va dire c'est par rapport euh, euh, euh, euh au macro industrie mm -hmm. qui fait que offre bi méngoowul ak demande bi léegi maintenant l'État dafay wuti yeneen perspective yoo xamante ni si dina mën a atteindre réellement le cible du dëgg te ça foofu la politique politique publique bi war a jëm te l'État l'a si bien compris Euh, d'ailleurs waaw Ndiogou d'ailleurs tey bu le ministre de Moustapha Diop uh-huh. sur l'ordre du président Macky Sall dem sur le terrain pour mettre sur pied ces ces euh, ces ces agropoles yaa ngi le ministère eh, spécial Ndiogou c'est très bien compris xam naa li ngay wax voilà xam comprendre naa fi nga bëgg a waxee. mais mais on mais on est d' accord on est d' accord importance ci li ñu wax nii a mën a dégg te dégg la bu baax s'il te plaît. on est d' que le le les politiques publiques du gouvernement. Uh-huh. de ce gouvernement. Uh-huh. a fait beaucoup. a posé beaucoup de de canevas. Uh-huh. yoo xamante ni si loolu moo nekkoon objectif bi on est d' accord ou non. Euh, yow tamit di nga ma nangul que ne object l' objectif n'a n'a pas été n'a pas atteint euh, atteint di ma ko nangul. mais effectivement parce que xam nga tey jii bu bu ñëwee ci deux semaines xaaral wax la Ndiogou si tam. si l' objectif euh, xoolal la quoi. léegi yow di nga ma nangul ne ñu def deux semaines ah. intervalle de deux semaines. plus de mm-hmm. quatre cent quatre vingt sept sénégalais son morts en mer. ci géej gi. Mm-hmm. yow xam nga kon loolu. boo toogee tey fii di wax ne état teg na ay caniveau yoo xam ne euh, jeunes yi mënoon nañ cee puiser pour toog ci réew mi pour liggéey mais yow mbokk mbokk quatre cent vingt 487 personnes yooyu dee mais ñu la dégloo dañ naan kii moom ban état lay wax. donc foofu laay ñëwee ci Moodu Moodu Moodu Sénégal laay wax Moodu Mbacké dégg Sénégal laay wax dafa mel ni mm-hmm. moom nangu na d'une part que ne état bi fayit na ci benn côté mais aussi wa mu ngi wane ne état mu ngi teg ay caniveau de développement ay caniveau yoo xam ne bu ci nit ñi puiser mën nañoo bu ci jeunesse bi puiser mën nañ toog ci réew mi yow nan nga gisee lu lu Ndiogou wax noonu ci état bi waaw sëñ Diagne damay euh, saluer courage yu Ndiogou ah uh-huh, Ndiogou vraiment am na gis-gis ni ma ko ah, ah. déggee. Mm-hmm. en que aussi acteur politique nekk mouvance présidentielle teewul mu avoué que ni. am na côté bu état. dañ koy bu baax dañ koy la quoi. du gouvernement bi. Ah, mais bu ñu nee état damay remonter lu gën a sori. nan dem lu gën a jege rek. président Wade. xam nga ni sàng bi nga waxee mbirum phénomène. Mm-hmm. dégg naa bi nga koy euh, wax ni noo doo ci d' accord en deux mille six. Mm-hmm. ba deux mille huit amoon na. lu mel nii fësoon fi lool. Mhm. mais man góor fekk xam na li may wax man mi nga xam tey euh, damay gëstu bu baax ci migration. Mhm. mbirum ci gaal yi musul jeex amul jeex. Mhm. luy wàññi ko woon rek mooy départ au Sénégal. dañ daan changer stratégie daan départ ji Maroc. ñi daan départ yeneen gox. ba ñuy départ Sénégal ndax booba amoon na Frontex mu doon garde waax yi bokkut ak ñu jàpp la. mais loolu bref tey li ma bëgg a wax mooy échecu état bi. Mhm. dem na ba xam ko xam ni état yi Afrique dañoo échoué ci seen politique de jeunesse. loolu moo tax taw wàddu président Macky Sall bi coow li bare ba mu amoon ay jeunes yu bëri demoon Espagne ba Espagne daal di refoulé. donc mhm. gouvernement espagnol dafa jëloon euh, lu toll ci lépp vingt milliards ah plus de vingt a si waaw. Uh-huh. Sénégal ni leen eh, li tax yéen seen ay ndaw di jóge ci seen réew di ñëw fii ci Europe dañu amul liggéey. Mhm. te loolu dëgg la di def seen ay mission d'observation càmbar dañu koo dëggal ñu ne ko léegi ñun nan leen jox benn budget vingt milliards milliards yi day ko formation encadrement mhm. mën a créer entreprise. loolu moo taxoon ba président Wade créé woon plan REVA. c'est mhm. plan REVA ba tey. finalement erreur la mu ñu a mu jeex échec anam loo ci déggaat kon échec état mi ngi noonu. ba ci dikkaat ne Italie ci boppam defoon na lu mel. la région nord Toscane. Mhm. ñoom itam réussir dañu accompagner woon à Sénégal. Mhm. pour ci ay formation hmm? uh-huh. mais ana koppar gi tey dañu ko détourné. moo tax li ma am ci information sax am na ay jàpp si. Mhm. dañu war a ci ay koppar. Mm-hmm. war audité xam ni dafa am lu état lu union européenne joxe woon mm-hmm. pour jeunesse bu Afrique bi bu Sénégal bi waaye ku suñu kilifay état kenn mm-hmm. ko def ko faneen ba ca def uh-huh. mooy ba Espagne gis ni ay ndawu Sénégal si ñëw uh-huh. amoon na benn partenariat ñu ni woon uh-huh. état Sénégal ak Espagne lu mat sept cent jeunes sept cent jeunes daa ñu jógee Sénégal dem Espagne. Mhm. liggéey fa cinq mois ñi sept mois ñi neuf mois ça dépend ci seen contrat de travail ba ñu am. ndax day doon euh, travail boo xam day doon ci saison bi lay doon. Mhm. nga dem liggéey li nga liggéey ñëw. kon Sénégal accord Espagne. Mhm. accord boobu tey politique moo ko yàq. état bu ay nëmbootu la collaborer Sénégal ci wàllu boobu kon loolu état bi kon ñaata ñaata xëy la xañ li nga xam si mooy kon ndaw nii kon état boobu moo sax bi espace amee gis-gis ni gis ñun ndaw yi soxla nañ leen. Hmm. mais nañ ko organiser bu ñëw ci yoon normal am contrat liggéey delluwaat. soxla uh-huh. ay ay góor la ay soxla ay góor lañ soxla woon ay góor lañ soxla woon. Hmm. ñi fi nekkoon booba temps wu jël seen ñi seen ay jarbaat ay jigéen seen ay mbokk def ko affaire politique. Hmm. Espagne booba ñi demoon ñu bari di ay jigéen nañu malika fi dañoo dem nangin faaw réer yi lii sax dañu war wal na leer ndax dañu nekkoon ci leen la nekkoon demuñ ci ay tool te gisu leen uh-huh. ñi amoon seen soxla woon béykat yi toog di xaar toog di xaar xaar ci gisuñu kenn ñu ni waa ñun ana contrat bi ñu defoon ak Sénégal uh-huh. parce que ñu ñëw ñëpp demuñ ci ay liggéeyukaay mais ñu ñëw dugg ci dem seen yoon hmm? Sénégal sériewul uh-huh. Sénégal sériewul mais gaa booba tey am moo ma doon am na fi ay am na fi mais ana koppar gi tey am na ay fonds yu bari yoo xam tey union européenne mi ngi koy jox état yu Sénégal yu Afrique yi te daf ci dugal faneen demul ci ndaw ñi ay dégg am na fii bu yàggul mhm. la président Macky Sall def ay pexe ah. président Macky Sall def ay pexe pourtant mhm. ñu am projet tout ce qui est tàllu ngaay ak koy lawal ci àdduna bi yëpp financement union européenne la woon pour maanaam ah. pouvoir le uh-huh. les petits défis là ba suñu secteur non développé finalement anamu taye kon loolu moo lay wax si la état bi ak en en même temps secteur de l'immobilier bant yi nga xam ne mu ngi ci si su sur la la la région la région sud bant yi nga xam ne mooy moom lañ soxla pour armoire pour lal pour bureau pour taux yaa ngi gis ne eh, ñu ngi ñu ngi importer ñu ngi ubbi filiale bu nga xam ne menuisier yi gisatuñ ci seen. waaw justement voilà fa laa jëm si woon. oui fa laa jëm si woon. mais fi nii boo xoolee. man am naa correspondant correspondante bu nekk Tenerife Îles Canaries. ma koy nuyu bu baax. kooku lim mu lay wax mooy bu defee enquête jeunes yi jóge na Sénégal ñëw lu ci ëpp ay nappkat lañu. c'est vrai nappkat yor seen gaal tëmb ci ndox mi géej gi ñëw amuñu lu napp. lu waral loolu mooy am na ay accord ba tës yoo xamante ne bii état Sénégal daf koo signé ak ay Chine ak ñu bari géej gi amatul dara. man ma jox la beneen information commencé embarqué dem. ci loolu. Mm-hmm. waaw waaw. Euh, euh, mm-hmm. ci ci euh, ci napp gi nga dugg léegi. xam nga est-ce que xam nga benn affaire en 2012. Mm-hmm. xam nga kilo coof ñaat la doon jar 2012. ah kilo coof. ñaata la doon jar. mille 1700 en 2012. tey ji kilo coof léegi mu kilo coof mu ngi jar cinq 5000 francs un kilo coof. xam nga kilo yaaf lu waral loolu lan la doon jar en mu ngi doon jar à peu près 600 700 650 léegi mu ngi jar 3500 gaz bi nga xam ne 300 400 la doon jar. léegi ñaata la gaz di jar di di litre diwlin di nga xam ne mu ngi doon jar six cent cinquante à sept cent avant deux mille douze léegi mu ngi jar mille trois cent litre diwlin et sur secteur secteur huile tey jii bu ñu xam nga l'état l'état dafa dafa bëri ay ay yoo xam ne man sama gis su bopp def ci faillite xam nga politique politique d'industriel amul Sénégal. yow am dëkk nan nga ko bëgg a développer sans industrie. ma yokkal la ci lenn sëñ Diagne. ma yokkal la ci ah. benn affaire. Euh, ah. bala may joxaat kàddu gi njóogu ndax xam naa ni moom itam euh, dana ñëwaat ak leneen ci ay mbir mais jàmbaar la pour waxal ni la. Uh-huh. échec bi dafa am. ci état xam nga bu ma. man parent su ma échecgee ma lu lu war a mën a toléré la. man jën su ma échecgee lu war a mën a lijjanti la waaye état bu échec moo garaaw état bu échec ci ab réew loolu moo garaaw. mais ça moo tax ma ni la yaa ngi wax mbirum gaal gi yaa ngi wax mbirum géej gi. Mm-hmm. xoolal tey géej googu tey nga xam dem na ba amatul lu jàpp est xam nga ni am na plus de deux cent cinquante entreprises françaises au Sénégal. yu ci géej gi. te foofu entreprise française. yu géej gi yu installé au Sénégal. entreprise deux cent cinquante entreprises françaises lu ko ëpp ñu ngi installé au Sénégal. li fi gën a baax lépp ci ay liggéey ñoo ko yore. nga dégg le secteur privé uh-huh. national di ko jooy tout le temps di ko jooy tout le temps nga demaat beneen mbir hmm. pour wax ni la emploi un état bu bëgg a dimbali ay doomam hmm. dafa am secteur yoo xam da koy sécuriser hmm. yow am na foofu nga nekk tey am na yenn barab yoo xam te bi xaalim dafa liggéey dañ ko réserver typiquement fi nekk nationalité parce que dafa am loolu dëgg la état bi organisé ñu si ay doomam fii nag xale day bàyyi et de la carrière attention danger li rek mooy après fu mu am dàng li ñu doon wax muy décentralisation bi su ñu dëkk yu sori yi wax dëgg am na ay représentation de l' état mais tey état dafa nekkal état tey bu échec mais ñun du nekk ci mu échec mu échec dañ naan eh, état mën général moo échec am na ku ñu état muy un chef d' état. Hmm. moo war a veillé ci lépp lu dénk mu mu xam ful parce que tey euh, làkkatoo benn gouverneur wala benn préfet wala benn xëy na ku mën di doon. Hmm. day yomb parce que le président ngi gis di xool ci mujj def na remaniement dañ ci léegi xam naa ni kon nga xam ni moom am na loolu ma ngi koy xool la ko ñor ma nga ca. Hmm. mais dans tout ça ana la jeunesse sénégalaise war a nekk ëllëgu réew mi ah, nga gisaat lu jëm ci. ak si mu doon wax léegi saat lu mel ni kii secteurs yi gën a baax gën a clé dañu mm-hmm. koo tey ndax ubbi suñu ay frontières mm-hmm. xoolal tey def luñ la jaay tey daal chinois lay doon mm-hmm. wala calcul chinois ak daan defar ay daalul der di ko jaay uh-huh. léegi yàqu na parce que ubbi nañ marché ñuy jéggaan di fi indi noonu la mel ci lépp nag lépp la fi daan daan sa doole am ndaw di ko laal dañ ko ubbi amul leneen sécurité ba ñoom ñuy lawal seen ay mbir di ko fi indi ba Sénégal du mën a doxati. pour wax ne la tey moo bi. mooy yaatu moo tax tey pour le moment. la ñu war a xool lu ci loolu. dem na ba nga xam ne. Mhm. ñun suñu yaay yi nga xam ne ñoo doon jaay ci marché bi légume sax léegi boo xoolee Auchan ñu ngi jaay lépp. suñu yaay yi jaay géej gi suñu yaay yi doon jaay ñebbe te Auchan moomu tey te Auchan moomu tey li ko état bu Sénégal defal. waaw Auchan bokk na ci entreprise française yi fi ñëw Sénégal Auchan moomu tey li ko état bu Sénégal may. Mhm. bu ko mayoon Pate Diop ñii nekk Sénégal bu ko mayoon Gora Seck moomu nekk tey Argentine. Ah. Gora Seck mën ñu a parce que Auchan li ñu ko may moo bari li ñu ko may moo bari. mais non man li ma gëm mooy. ah. waaw waaw mais décentraliser décentraliser la débat. waaw xanaa da ngeen man bokkatuma. Eh, Ndiogu maa ngi ci yow laa jëm. mais Ndiogu nag attention Ndiogu yow li ngay li ngay jël li ngay jël am li ngay jël am temps bi yëpp man lalu ma xaj bi ah yow Ndiogu. <laughs> waaw yow man yow yow man kay temps bi yëpp yaa ko jël. non mais Ndiogu yow ci yow laay ñëw parce que yow déjà rek man dama lay féliciter féliciter bi ma la bi ma lay def mooy déjà yow sa ta sa njëlbeenu wax rek nangu nga ne.

reconnaître ça. mais yow tey jii li nga wax euh, d'abord benn avancé Ndiogou. ma ni ma ni ma ni benn benn benn avancé. Euh, bon euh, politique de de de de l'immigration. Uh-huh. coopération bi ci am entre peut-être le Sénégal et et ses partenaires. Uh-huh. particulièrement l'Espagne. particulièrement l'Espagne. waaw kooku moom mën nañ cee. mën nañ cee. avec les milliards détournés il il faut de tes idées. waaw ma ne ma ne loolu. loolu mën nañ cee blâmer ku nekk ba mu des le président Macky Sall parce que déjà moom bi mu ñëwee. Uh-huh. bi mu ñëwee. Mm-hmm. bi mu ñëwee loolu da koo teg fële. Mac le président Macky Sall li mu def mooy sukkandiku ci li nga xamante ni si mooy programme public am. Mm-hmm. wut ay financement am déroulé. dépendretul ci ay accord de de d'immigration entre l'Espagne la le Sénégal mu koy décréter naan ko sept cent ñooy ñëwule wala huit et cetera loolu moom le programme le président Macky Sall doxul ci loolu waaw dafa teg ay structure yoo xamante ni si moom mooy facilité pour accompagner les jeunes te le structure yooyu ñi ngi fi seeni programme yéen a ngi koy dégg la ñuy defakus néewit yéen a ngi koy gis yéen a ngi koy xam mais Ndiogou. maintenant. Ndiogou non non non il faut ma la il faut ma laisser. Euh, quand même continuer loolu ngay wax noonu. ban service moo ci bénéfice est-ce xam nga sa benn mbokk. bu ci bénéficié wu. non man man du ma wax ci particularité. ma je non. je parle dans le sens général. si général de la politique mais non non est-ce xam nga xam nga xam nga boo gisee boo gisee débat bi di gudd. Hmm. boo gisee débat bi di gudd ay particularité bu ci duggee rek. débat bi day day day day gudd. bon je te je te donne l'exemple de Fès xam ngeen Fès. waaw. bon Fès euh, fonds d'appui la euh, pour, pour les Sénégalais de l'extérieur mais dafa am parti boo xam ne fonds Fès da ci collaborer ak ANPEJ. Mhm. pour les jeunes qui sont au niveau du Sénégal. Uh ah. -huh. particulièrement les femmes. mais dama ne la man fii ci Argentine. waaw femmes yi fi nekk. elles sont au nombre de plus de cent cinquante. waaw yaa ngi dégg. man ci samay pexe bopp fii depuis Argentine. fexe naa ba ñaari femmes ñetti. Mhm. allo Ndiogu. Mhm. wutam leen. waaw. ma fexe ba wutal leen audience au niveau de de l' administratrice euh, du CES yaa ngi dégg. Mhm. administrative space boobu c'était que pour que femmes yi nekk fii Argentine mën a jot seen financement ci fees boobu parce que dina leen dimbali du dëgg. Euh, euh. bon femme bi bi mu leen recevoir ni leen effectivement Argentine bokkoon na sax ci liste bi nga xamante si. Hmm. moom la ñu war a euh, saytu si pour seen financement. Uh-huh. au détriment de d'autres pays yi jot. mu ne leen léegi est-ce que yéen def ngeen demande. ba ba ba ba la madame euh, l'administrative woote consulat bu Brésil fii. Mm-hmm. pour laaj ndax demande Argentine mi ngi fi pour wàllu fees parce que xam nga ci co ci ambassade yi lay jaar. bon bon léegi mu mu xamal leen ni leen léegi c'est fini léegi def leen demande bi rek comme defagu leen ko mu jaar fële. Mm-hmm. def leen demande bi bu ngeen delloo. booba ba léegi. booba ba léegi maa ngi topp ci ginnaaw jigéen ñooñu di leen wax. pour ñu présenter ma la liste des femmes man mën naa leen a bindal projet sànq ba sànq ci suba vous savez c'est la même chose qui se passe qui, qui se passe au niveau quand même euh, euh, la population sénégalaise yemul rek ci jeunes yi même ba ci les adultes ak les femmes ak yooyu yëpp en général les quatre-vingts pour cent dañuy dëddu les programmes de l'État. mais Ndiogou. qu'on se dise la vérité. baal ma ma dugg foofu gis nga les pro les programmes de l'État ay nit ñoo koy doxal ay nit yoo xam ne état moo leen fay teg leneen doxal leen bañ nañ ko ba eh, la la deuxième mandat wu président waaw léegi léegi lan nga bëgg da nga état day taxaw léegi ci mbedd mi ni kaay leen ma financé leen ba ba même ma tuuti rek ma dugg ma ma porox ndollu foofu développé tuuti gis nga état état dafay teg ay programme waaye bu tegee ay programme ci ay loxo nit la koy teg ñu jiite programme yooyu te deuxième mandat wu président Macky Sall bi lim ñëwee slogan bi mu indiwaat comme moom moom moom nitu slogan la tout le temps dafay créer ay slogan indiwaat na ay fa fast track. di ko di ko doxal dafay créer slogan di ko doxal. di ko doxal fast fast track bi je crois que ni waroon na mën a bokk ci liy gaawal. financement yi pour mu mën a tegu ci ñu ko war a soxla bu fekkente ne da nga. benn projet mais mais mais jugu ci. mais jugu ci projet pour écrire le projet te prend un mois après nga war ko déposer. non non non non pourquoi pourquoi pourquoi ça va te prendre un mois. non non non non non pourquoi pour écrire un projet ça va te prendre un mois non. non ça ne va pas prendre un mois pourquoi ça va ça va prendre un mois moi je je vous dis que. Euh, euh, jigéen ñi fii li ma leen di li ma leen di toppee rek mooy seen liste compte. la lenteur administrative hein loolu ñu ñëpp xam nañ lenteur lenteur administrative yooyu lenteur administrative yooyu gis ngeen jéego li ci le président Macky Sall teg ci ci ci ci ci les les rénovations de l' administration publique yaa ngi dégg ci la nekk ba léegi moo tax sax d'ailleurs mu gën a accentué wu ci li nga xamante ni si moom mooy acte trois de la décentralisation pas plus tard gis ngeen ko bi mu fi dajalee les maire là c' était par rapport à cela mais vous avez vu nga baal ma xam naa dafa mel débat bi ñu ngi ko bëgg a jël. décentralisé waaw sax non débat bi non débat bi xam naa dañuy dellu ci loo xam ni moo ko gën a intéressant muy ndaw ñi ñu ngi jóge Sénégal. waa mais mais sànq aussi mais sànq débat bi dangeen koo jëlee ci ndaw ñooñu. moom mooy débat bi dangeen koo jëlee ma ne ma ne. ma terminer sànq débat bi da ngeen koo jég débat bi da ngeen koo jëlee woon ci ndaw li. ndaw yi indi ko ci lëpp prix le prix de de l'huile indi ko ci leneen. Mbacke na ko ca ba tey nangu woo ci dellu muy ñàkk taxawu goo xam ne état bi ñàkk na ko taxaw ndaw ñi donte ni tudd na ko ay liggéeykat la. non non non non non yaatu na. Hmm? boo ma bàyyi na ndaw ñi ñu ngi ba man ba man leen ba moo tax tey dañ ko wan ginnaaw ñu Espagne boo xoolee tey ñu génn tey dem liggéey tool ma ne ma ci tool liggéey tey suñu état yi mu ñu woon a dellu foofu taxaw fii ma ne ma ne le président Macky Sall le président Macky Sall le président Macky Sall li mu def ci agriculture li mu def ci agriculture amul benn président bu ko def Sénégal agriculture motorisée ci le président Macky Sall lañ ko xamee le les les les les les domaines agricoles communautaires ci le président Macky Sall lañ ko xamee ah la subvention des engrais et et cetera li ci le président Macky Sall def ten xamul nu mu toll. mais yow la politique de l' agriculture li ci président Macky Sall def benn président. bu Sénégal def ko Ndiogou je suis désolé dinaa la ko nangul mais bu ñu demee tey ci géej gi 90 pour cent tey ñi nga xam ñoo jóg di dem boo seetaan reportage ci ay mool lañu lan moo tax mooy mënatuñu gagné ci géej gi l' essentiel bu jaay na ko. non non non mhm. attends loolu je ne suis pas d' accord xam nga lu tax je ne suis pas d' accord. Mhm. je ne suis pas d' accord y a des pêcheurs effectivement ñu te ñu ñu tendre leen le micro dañuy wax. seen problème yi ñu am ci domaine pêche bi mais yéen domaine pêche au niveau du Sénégal. à part à part les licences de pêche non de à part licence de pêche yi ñuy wax à part licence de pêche yi ñuy wax et que le ministre Aliou Ndoye a suffisamment expliqué yaa ngi dégg mhm. président Macky Sall def ci wàllu pêche au niveau du Sénégal ci biir huit ans yi amul benn président bu ko def bon eh, les les quais de pêche le rénovation renouvellement des quais de pêche tout euh, xam nañu euh, les licences de pêche les licences de pêche Ndiogou de pêche Ndiogou je t'en prie Sénégal dafa Sénégal dafa mës a dafa am coopération internationale comme ni ko yeneen pays yu bari amee yaa ngi dégg le président Macky Sall ba mu toogee ba léegi il a revu beaucoup de de de de de de de de de de contrat yoo xamante ni si lié na le Sénégal sur le domaine de la pêche avec ñi nga xamante ni si mooy entreprise yi mu ko sekkal kooku kenn mënu koo werante bon eh, yooyu tellement de gis nga xam nga li ngay wax nii. li ngay wax nii. non c'est c'est bien beau. rafet na ci bu ni nga koy waxee ni bu fekkonte ne vraiment euh, mool bi nga xam ne tey jii ah dugg na ci gaalam. bàyyi bàyyi dem géej. mool boobu mool boobu. mool bi mool boobu tey mool boobu mool boobu am na structure bu mu wekku. ma ne ma ne le mool lambda la. le mool lambda. le mool lambda am na structure bu mu bokk. même ah. structure ba mool bi bokk. boo demee ci structure ba mool bi bokk ña di ña structure ba duñ la wax la mool bii nga xamante ne si dañ koo tendre micro muy wax. am na ci mool yoo xamante ne si la plupart des mool sax bokkuñu sax ci structure de pêche yaa ngi dégg maanaam c'est c'est purement euh, comment dirais-je euh, anarchique. organisation yi nga xamante ne si sax moom la ñu teg ci secteur boobu y a de euh. mool yoo xamante ne si. xamuñu ko sax. Ndiogu daan daan dellusiwaat Ndiogu daan dellusiwaat Jokalante Modou Mbacke xam naa guddi na Sénégal ci xam naa yaa war a def journal suba la ñu beeg yeneen nga ko def foofu ci fii ba tax na du ñu la téyelu yàgg xam naa donte ni jafe-jafe yi bari na Sénégal ba ndaw yi jóg di demit mais lii dee métti na ba tax na tey solution war naa am mooy état bi gën a dëgëral ay taxawaayam ba aar géej gi donte ne am na loo xam ne seetaan naa ko benn reportage man ngi ko seetaan ci Seneweb wax dëgg yàlla ñu def ko loolu yaakaar naa bu ñu ko teela woon itam mm-hmm. tey lii du am mm-hmm. mooy lan dañuy jël presse bi ànd ak ñoom dugal leen ci seen ay bato yoo xam ni kon dañuy wane liggéey bu am solo ba nga xam ne ñu ngi koy def ci géej gi loolu nag dañ ko war a gën a yaatal bu ko defee ndaw bi nga xam ne tey moom mi ngi toog mm-hmm. këram di seetaan war a jël benn 300 mille am dugal ko ci gaal dana ah état kat am na taxawaay yu am solo yooyu man gaal bii tey bu ma si jógee ñoom ñu ngi ak seen bato ci biir waaye yor seen appareil longueur yoo xam ne tey fu suñu bato demee kon mën nañ ñu wàññiwaat ñu ñëw kooku dootul sóobuwaat pour jëm ci géej gi loolu itam mm-hmm. def nañ ko ànd ko ak projet loolu war nañ ci gën a yaatal defe naa aha sëñ Gora jërëjëf dinaa tontu sa laaj boobu ndax loolu si mu am mais dafa am sàng lu njóogu wax ci laay ñëwaat tuuti pour muy problème mu fees bi Uh-huh. may nuyu bu baax soxna naata sàng madame Mbacke mi koy coordonné uh-huh. uh, fan yi sax waajuram mu jigéen dafa génn àdduna occasion ñu jaale ko bu baax a baax di ñaan borom xale ko àjjana mais andi na lu mu wax ci feeg Abdoulahat Lo bien sûr waay ahim mm-hmm. gis nga pour waxal ni la uh-huh. euh, gis nga tey feeg man waxoon naa ko madame Mbacke man ko xam ne madame man li ma jaaxal mooy fonds boo xamante ne bii euh, daanaka trois milliards lay toll. waaw euh, trois milliards bi yenn deux milliards yi mi ngi jëm bitim réew. est bu ne fonds d'appui à l'investissement des nga l'extérieur est-ce que a doon góor a fekk mi dem Argentine. Uh-huh. am fa expérience. Uh-huh. ñu war ko accompagner uh-huh. mu ñëwaat Sénégal mën a créer entreprise. man fee créer emploi. dëgg la mais bu dee xaalis tey ñu koy jël. mais volet boobu voilà xaar ma yeggaleen xaar ma yeggaleen xam nga da wax ni Ndiogu yow am na ñoo doon jéem a enrôler ci côté Argentine pour ñu am financement loolu day wane kon am na financement bu bëri bu war a jëm bitim réew moo tax may poser question ma ne waa léegi dans ce kon lan la fees jouer ci lutter contre l'immigration clandestine bi nga xam ni koy wax est-ce que tey lu leen ba ñu fee ju fee jël na jeunes yu bari. bitim réew ma yegale ma yegale ma yegale bari bitim réew. ma yegale ah. xam nga xam nga xam nga man dem tànn. xam nga non non politique moo mel noonu politique moo mel noonu uh-huh. waaw mais xam eh, xam nga mu xaaral gis nga gis nga gis nga moo cher moo cher euh, Ndiogu waaw gis nga li wér ci wér mooy li fekk li fekk mbir mi. ñi ngi koy teg ci def naa li def naa lee. am na tam mais bu buñ ko teg aussi mais buñ ko li te la mu def kenn du ko wax aussi. waa mais li war li war a def li warul lay wax li war ci nga xam ko yow li war ci nga xam ko mooy Sénégal. dafa wërta am alal bi fi génnee jëm bitim réew. ci gën a sonn bay dee ci ay gaal nekk fii mosoo gis benn femme bu ne bitim réew ñu la mu ngay jël gaal bëgg ñëw Sénégal bëgg ñu bis tax muy dee ci ndox mi déedéet kon alika la boobu bu sa tànk bu sa bu sa bopp bu sa bopp dee metti mhm. bu sa bopp dee metti ñi faj ay tànk da nga yàq sa médicament am. Mhm. mais doo gaaw a faj. loolu euh, point bu ndaw la pour xeex bi lay wax. non non non non non euh, euh, da nga wax sànq góora. da nga wax sànq góora ci mbirum gendarmerie. il y a d'autres hmm? structures yoo xamante ni si c'est pour les jeunes qui sont là-bas au Sénégal les femmes qui sont là-bas. fees beneen par beneen affaire la fees dafa ŋarale. Hmm. mais il y a d'autres structures ay ANPE yooyu yëpp. c'est purement les la plupart la plupart mais mais mais mais Ndiogou Ndiogou Ndiogou Ndiogou pour clôturer débat yi ak ak yow mu continuer tontu Gora pour wax ne la rek dans tout dans tout ça échec bi moo feeñ manque de résultat moo am moo tax Sénégal tollu fii tey may yow échec rek ngay gis xam nga hmm? yow échec rek ngay gis mais doo doo doo gis <laughs> performance Diogo. performance mënta am li fa échec mi ngi am échec bu ko teg a gàtt mooy. nga boo hmm? amee sa kër su sax na. mu koy leeral ci benn mbir sax sëñ Diagne sëñ Diagne. li la cee wóor mooy. Uh-huh. amal sa kër nga am sa soxna ci biir kër gi. Uh-huh. yaa ngi am sa kër nga am sa jabar ci kër gi. Uh-huh. nga jox ko dépense bu doy mu ndugg ñëw toggalu neex moo jaadu. un état noonu la. état bu la joxee un état jox la tous les moyens. Mhm. échec bi moo la war a taxaw échec bi mooy problème ndax dañ laa jox. Ah, non non non pour li jël problème bi. Eh, non non non non l' état n' a pas tous les moyens. l' état n' a pas tous les moyens. l' état redresse les l' état n'a pas tous les moyens am na lu ko Sénégal jox. Oh, am na lu ko réew ma jox mais aussi. Euh, je crois que ni dépense bu euh, mat amul dans une famille dépense bu mat amul. Euh, Ndiogou Ndiogou man de bu ñu duggee ci 100 pour cent politique Ndiogou bu ñu duggee ci politique. Hmm. ah. oui état bi amul état bi amul lu doy. état bu amul lu doy. lu muy defee lu muy defee 47 milliards ci defaat ab building administrative. état bu amul doole lu muy tabaxee lu muy tabaxee ab stade am na solo jëm naa jox à cent milliards stade bu amul lu doy lu muy jëlee lu muy jëlee xaaral xaaral njóogu nag da nga déglu loolu sa njóogu da nga déglu njóogu njóogu da nga déglu ñu wax pour ñu avancer non non dafa recherché dafa recherché non non dama wax lu muy recherché financement la mais mais financement yu yu yokk looy un état bu amul ay moyens du jël quarante sept milliards def ko ci building administratif boo xam da koy defaraat mm. un état bu amul ay moyens du mm. jël au conseil euh, euh, au conseil euh, des collectivités territoriales di ca def budget de sept milliards PSE daf leen jël sa mais état bi ay moyens ma du créer ay ministères yoo xamante ni ni bii non bu ñu wax loolu boo ñu waxee loolu da ngay indil président Sall beneen erreur boo xam kon. non non non nga a a a a a loolu dafa am loolu Sénégal rek la am man Sénégal rek laa gis. Sénégal rek laa gis ci monde bi. mais Sénégal nga am Sénégal moom Sénégal moom problème bi am na xaalis. kon Sénégal Ndiogou mooy cher. je te bi nekkul débat politique Ndiogou nekkul débat politique politicienne. te le Sénégal moo am problème ñu xool ay solution nekkul débat politique boo xam ne bi dañu ñëw pour wax wax affaire mbaa man on parle de l'État on ne exemple bi. man s'il vous plaît je te donne un exemple. non ma jox ko benn exemple bu ndaw. exemple bu ndaw bi ma lay jox ci détail yooyu rek pourquoi l' état n'a pas de moyens il reconstruit euh, euh, il il reparfait le building administratif lu tax loola milliards yooyu dugalu ko fee et cetera et cetera l' est un ensemble amul ay priorité la am. ak li nga yenn dépense yoo xamante ni si tamit. même priorité. mais priorité yi ñoom le bien-être de sa de sa population quand même. priorité nekk ñu am école yu baax mën a jàngal suñuy doom. waaw mais mais pourquoi pas. pourquoi pas qu'est-ce que qu'est-ce que le PAP qu'est-ce que le PAP le programme PAP. un et deux te tey ñu nekk ci phase deux bi parce que priorité. yooyu waxuñu ay programme ñu ngi ci réalisation résultat. Euh. waaw mais ay réali réalisation yu moom nit ñi teg nañ ci seen bët yaa ngi dégg léegi ay étape seen bët mooy ay ndaw di dee ci ndox bi. non non mais mais ndaw di dee ci ndox bi amul marché. non non non écoutez écoutez ndaw di dee faju doo faju. non non non ay école abri provisoire njóogu. loolu mooy loolu mooy comme état bi amul ay moyens am na. réalisation mais yow njóogu njóogu hmm? yow yow da ngay dugal sa bopp quand même. non non non non non non dugaluma sama bopp dugaluma sama bopp je te donne un exemple di ñu wax ay euh, euh, réalisation te abri abri abri provisoire xale yi di jàng ay wax la rek la presse du ko la presse ne va pas démontrer la presse ne va pas démontrer que ay 6000 abris provisoires la presse ne va pas démontrer ça ça c'est faux. amul eh, mais yow xam nga li non non mani mani mani ce que le président a fait sur l'éducation moi j'étais enseignant je sais très bien ce que je dis c'est pas pour lan nga ñëw Europe lan moo tax nga ñëw Europe bàyyi sa enseignant bi am école les secteurs enseignants instant bi dafa sonn dafa xoox yéen a ngi ay grève ay débrayage non non non au contraire enseignant bi sax yaa gën a placé que def bilan président Macky Sall secteur bi ëpp solo njóobu njóobu njóobu un pays bu bëgg a émerger da ngaa war a fonk say enseignant fonk sa éducation bu dee ba enseignant di immigré mais yaa problème njóobu mani mani mani au contraire au contraire l'enseignement la situation des enseignants de Dakar les les les les étudiants ñu ngi génn ci biti di grève di taal pono yi. kon bul ñu wax ay réalisation. non non non non Ndiob comme que ah, enseignant nga Ndiob. Ndiob comme que enseignant nga. Ndiob comme que enseignant nga. dem ba ci secteur enseignement bu bi Ndiob loolu mooy wane ne kon yow sax yaa ngi indi problème président Macky Sall ndax yow en tant que enseignant. non non non non programme bu am solo. attendez attendez attendez attendez attendez ma ne ma ne yow bul dugg ci problème parce que boo fa duggee da ngay gën a dugal sa bopp ci pax mi xam nga lu tax. man du ma dugg ci ma ne dugguma dugguma ci pax de dugguma ci pax de parce que du ngeen déglu du ngeen déglu ma leen di tegal lu leer ci pax bi da ngeen di teg dama leen tegal lu leer ci table dama leen di tegal lu leer nañ ci table ji waaw bu ma leen bu ma leen joxee exemple enseignement c'est parce que damaa bokkoon ca secteur ba kon Euh, euh, loin dans mon pays bu ma la nee l'enseignement actuellement au Sénégal la situation des enseignants et beaucoup plus meilleure te parce que man dama cee xam dara parce que jaar naa ca waaw la tax ma ñëw fii nag kooku beneen affaire la d'ailleurs ça ne dépend dépendait même pas d'ailleurs sax moi j'étais pas j'étais j'étais pas de l'État encore une fois bon euh, euh ma jox la benn exemple force Covid 19 bi le président Macky Sall ne mille milliards yi moom mooy euh, résilience. Mm-hmm. dégg nga. Ah. bon pourtant bi musiciens yi jugee di laaj seen wàll. bi musiciens yi jugee di laaj seen wàll. Mm-hmm. mais ñu bari dañ koo ñaawlu ah mais alors que c'est normal parce que tout simplement xaalis la boo xamante ni si dañ koo déggee pour les impacter di Covid noonu la. noonu la lii ngay wax nii mel pourquoi ñuy defaraat building administratif parce que building administratif existe te ma ngay dégringolé wu ma ngay euh, euh, euh, am état boo xamante ne si il faut ñu réparer waat ko et puis surtout les financements nan xool ndax danoo dem ca trésor ba génne ko fa wala état moo dem wuti financement Ndiogou baal ma tudd rek da nga tudd mille milliards ci xeex Covid 19 muy. mais mais góor a góor a góor a góor loo xam ni dafa mat taxaw dafa lancé appel mille milliards ngir xeex coronavirus bi ñun dafa am lu gën a graaw coronavirus ñun tey woo taxawee def ab jàngat gis ni tey ñun li ñu doon xeex am na lu fi génn ci ay semaine tey hmm. gën ko garaaw ci ñuy hmm. faatu boobaak tey tey est ce que njiitu réew mi warul woon defaat ni mu defoon ci affaire coronavirus bi woowaat ñi nga xam ni ñoom ñooy opposant yi woowaat tey kilifa hmm. ci réew mi kat nekkat lii nekk na loo xam ne nag jéggi na dayoon nañu seet solution defe naa tey mille milliards yooyu tey bu ñu ko tegoon tey. moom mooy lan mooy lan lan la ñuy seet solution lan la ñuy seet solution. comment lan la ñuy seet solution. lan la ñuy seet solution. xam nga xam nga lu tax duñ def loolu. góor a mais mbëkk mi mbëkk mi l'état góor a góor a. mbëkk mi mbëkk mi l'état n'a pas besoin. déglul mbëkk mi l'état a des solutions. mi ngi ci. je suis désolé mi ci la mësa na. dafa war a dafa war a teel ak maman bi ni mu ni mu toll dafa war a teel mu jóg. waaw mais mi ngi ci mi ngi ci doxaat beneen jéego jëm ci bu ko defee ndaw ñi nga xam ne tey li nekk seen seen bopp yi. waaye ma ne. Hmm. ndaw ñi li nekk seen bopp yi dina denc seen bopp yi l'État li mu ci war a def dina ko def l'État est responsable le président Macky Sall est tellement sensible de ce qui se passe. bon léegi. bu ñëwee bu euh, gën a indi na léegi ñu ngi waxtaan affiché nañ numéro téléphone bi. may ma itam ak ñoom ñoo bokk waxtaan bi mën ngeen ci woote ci ngeen defee plus. 549 bu dee ñi génn la nag bu dee ñi ne ci biir réew mi 2 2 3 ngeen ko séenee sa innovateur CTC 42 ngeen mën a ànd ak ñun itam waxtaan bi indi ci seen ay ay xalaat ñi génn mën nañ def plus 549 22 36 93 76 42 ñi ci biir réew mi 22 3 693 76 42 foofu la ñuy def ngir ànd ak ñu ci. léegi pour ma pour ma ñëwaat waat émission bi. mooy góor a actuellement ñu ngi toll ci war a lan lañ war a mën a def. yan solution moom laa uh-huh. moom laa bëggoon mu wax lan la xalaat ci solution. après ñu mën koo libérer moom comme dafa war a def xam naa journal bu suba bi Modou Mbacke. Ah, ah, sëñ waaw yow xam naa ne ak ak. xam naa ne heure Sénégal guddi na ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax. Ah, ndax euh, sa disponibilité ak ak ni nga ko ni nga fullaalee émission bi. wax dëgg yàlla comme dañuy bëgg ah, te xam naa ni yaa ngi war a def journal suba bi ñu bëgg rek nga wax yow lan nga xalaat ne muy sa dernier mot ak sa tàggoo sa tàggoowaat lan nga xalaat ne moom mooy war a nekk solution concret yu urgent lan nga jàpp ne mooy solution urgente si ñu war a def au niveau de l'État et au niveau tamit de ci jeunes yi solution bi mu njëkk a jàpp mooy d'abord uh-huh. communication communication d'abord très bien gis nga bi corona bi dikkee. Uh-huh. le président Macky Sall def na lu mat trois ba quatre sorties. ci uh-huh. mbirum Covid bi. Uh-huh. te xam nga ni lii beneen xeetu pandémie la ci beneen façon. ay bakkan ñoo ci wadd. Mm-hmm. defoon doon ci baax président Macky Sall jël laa RTS la chaîne nationale bi ñëpp bokk. Mm-hmm. jël ci ba doon ci benn dix minutes. masawu Sénégal. masawu parent yi. Mhm. delluwaat woo xale yi daal leen di encouragé waat. Mhm. ndax boroom kër ci boppam bu njabootam nekkee ci jaaxle. Mhm. daa war a taxaw wax ak ñoom. wax ak hmm? loolu lenn la wax ji ak ñoom tamit. maa ngi xaar président ci Sall war na def yenn ay assises. yu l'immigration manière générale. dëgg la war nañoo woote ëngam loogu yaatu. boole acteurs yépp ni ñu ko defe woon ci mbirum pétrole bi te te jam ñaajo sant ko nag Abdou Diouf ah. dajale acteurs yi nga waxtaane mbirum pétrole bi mhm. fi ñu toll nii tey pétrole boobu nga xam benn toq génnagul lii nag dara jaa ngi tuur fi ñu toll nii kon jóg ci wax ci dafa jot c'est vrai dëgg ci waxee mooy tey mhm. bu président ci Sall woowoon ministre de la jeunesse woowoon ñi nga xam ci ñooy ministre euh, de la formation ministre de l'emploi de la formation professionnelle. Mhm. loolu lépp kon dañ ko war a mën a dajale boo ko defee ñu xaat ay méthodes lu mën a def ba gën a suñu ndaw mën a am parce que mbir mi instant bii mu toll nii. Mhm. gis-gis économique am na waaye mhm. dëgg la loolu moo tax ma ni waxtaane ko. en même temps aussi Modou ñu boole ci aussi kilifa diine yi. parce que sookul sookul sookul sookul boo bëggee def communication mu bëgg yi nga bëgg mu yegg ci jeunesse bi ñu déglu bu baax actuellement Sénégal parce que jeunesse bi gëmatuñ gouvernant yi et c'est la ah, réalité ay Macky Sall yu toog RTS di wax sama classe gi dañuy zappé dem feneen léegi pour loolu ñu mën ko capter jeunesse boobu ñu capter leen il faut ñu boole ci kilifa diine yi Sénégal dëkku diine la lu ñuy def dégg teggi diine teg fee dara du sotti loolu ko. Mhm. loolu lu am solo la ndax kilifa diine moom Sénégal mooy njëkk mooy mujj ci mbir. Mhm. mbir moo fi gis tey kilifa diine moo ci njëkk moo ci war a mujj pour mu am. effectivement avenir pour mu am njëriñ ci réew mi. loolu lu mënta ñàkk. waaye pour wax ne la fépp nit nekk ci réew tey dafa aajee président Macky Sall fekk benn politique ci yéen. bu ne tey bari na bu ne wetu def fa soixante ans quarante ans ci du ko ëpp lépp ci Sénégal moo leen tax a jóg. dëgg la tukki am na wala nga am alal su la encadré nga ñëw parce que ñëw ñu bëri ko xam danaa man ñëw naa Sénégal. maa fi ñaari at ci wàcc ci créé benn affaire na lay sagal. dëgg la kon indi sa projet ba pare déposé ko xam na état bi gis ko créé ko def ko gestion di ko doxal. fekk na sax yow dafa gis ñu sonn amoon ay partenaires moo am problème ba am na fi ay projets yoo xam ne ñu ngi koy doxal sensibiliser ñu déposé ko fenn. état encadré état bi jël ko benn politique boo xam ne bii danaa naaw fee suñu bés boo xam ne yaakaar naa góor see xam ne sax bu baax ndax bari nañ si li nga xam ne bii ñu ngi lay ci bari xool ci naa ko ci Sénégal ci en deux minutes wala en deux minutes. daanaka tàmbali coow xam nga daal ne mbir mi. problème problème bu am bu fekkee yaa ngi dégg nga déplacé tout rek sa réseau. kookal la waaw Modou Mbacke dañoo amoon problème mu réseau moom Modou Mbacke. Hmm, léegi c'est bon. c'est bon waaw c'est bon waaw. Hmm, léegi daal li may tëjee daal mooy euh, nañu woote yaatu. Uh-huh. boole ci yéen immigré yi. merci boole ci jeunesse bi. Uh-huh. boole ci euh, sëriñ bi ni ñu ko waxee sànq kilifa diine yi boole ci artistes yi boole ci ñëpp mhm. ba pare nag mu doon lu concret loo xam dañ koy jëfe mais un état bu demee de say sa peuple la ay ay panel comme niñ ko tàmmee di gisee rek panel tout le temps. te non loolu lay wax na doon lu concret. Ah. bañ a doon mbirum ay puudar ci bër rek. bañ a doon sëlëm bañ doon dara ngir romb étape bi. Mhm. parce que bi ko président sa bi ko président Wade defee. mbir ma fëtiwul moo tax li amaat comme mhm. président Sall fekk na li tey moom itam am na responsabilité am te régime Wade Macky mi ngi ci woon nekkoon ca diggal ba kon moom war na jàng ci li fi romb ba tey moom bu ñëwee war na ci am solution daa baar mais pour le moment daal jàpp naa ni mhm. eh, ñu ngi ci leneen ak leneen loo xam xëy na ñu mën dina ñor mhm. ba léegi tey ba léegi président Macky Sall waroon naa mën a génn dem sax wala ministre de la jeunesse wala benn ministre yi dem gis ay jeunes wax ak ñoom mais ba léegi dañoo bàyyi jeunesse bi presse ba ci wax def ay émission invité di sensibiliser mais ba tey état bi moom man ca la mu nekk. c' est vrai nag ñu ngi def loolu presse mhm. loolu moo tax na bu ñuy wax boo tax bu ñuy wax Sénégal moo ñu tax a jóg moo tax ñun presse bu ñuy wax Sénégal moo ñu tax a jóg. du attaqué président wala directeur moo tax a jóg. Mhm. du mbirum politique moo ñu tax a jóg. waaye nag ñu ngi jàpp naa ne nag seen objectivité seen objectivité nag aussi moo ciy bëri waaye du ma tax am solution il faut ñu toog dal teg fële mbirum kuréel de parti teg fële mbirum fa nga bokk ñu waxtaane Sénégal nag génn dëgg bi teg ko ngir ñu mën a am solution loolu rek moo ñu ci mën a gën am solution ba lu ko mooy daañu toogaat fii hmm. deux mille vingt cinq deux mille yàlla ñu ko fekkee waaye li fekk li muy continuer daañu toogaat fii ay at ci kanam a kanam même problème mooy amaat même situation mooy amaat ba tey même débat. jërëjëf Modou a Modou Mbacke ñu jaajëfal la bu baax ci ñi euh, nga maa ngi lay gërëm bu baax may itam li nga indi waaye itam di jël ngërëmal diaspora bi yëpp ci jamono bu nekk itam di la ko di la ko jagleel. lu ëpp fukki at. rajo bu mu nekk rek dina fexe ba am fa temps bu yaatu boo xam ni dana fexe xam condition yi diaspora bi nekk waaye itam wut ca solution. Mhm. ba DTV bi mu nekk wax dëgg yàlla def na lu ne moment pandémie bi daanaka par jour. Mhm. lay wër àddina bi kenn ku nekk mu xam la nekk. Mhm. waaye itam di invité kilifa yi nga xam ni ñoom dañu yor ay ndombay tànk yoo xam ne dafa jëm ci ñun. Euh, di leen di leen di leen eggee li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi wax dëgg yàlla loolu itam en tant ku nekk ci diaspora bi dañ la ci sant bu baax di la ci gërëm ñaanal la ci itam yàlla mu doon la ci ndab bu baax a baax. amiin waay jaajëfal bu baax. xam nga dañuy bàyyi antenne bi ak ak ak. jërëjëf moom da nga mën a libre. Uh-huh. gis nañu ni daal. waaw Modou Modou Mbacke non laissez-moi laissez-moi remercier Modou Mbacke bala moo dem. waaw di bàyyi la ak moom waaw. Njo Ndiogu. waaw laissez-moi remercier Modou Mbacke d'ailleurs d'abord. Euh, euh, bëgg a xam ban ban presse la nekk rek ban. Euh, média la nekk DTV la nekk. ah DTV bi waaw. DTV parce que bi ngeen may envoyé invitation beeg annonce beeg yëpp ci ci plein la may fekk liiru ma ko sax attentivement. Uh-huh. mais quand même Modou Mbacké toutes mes félicitations. Uh-huh. Euh, parce que euh, comme da nga choisir diaspora bi. Mm-hmm. mu nekk euh, secteur boo xamante ni si vraiment moom aussi dañuy soxla depuis Sénégal. Uh-huh. vraiment ñu leen di déglu di jàllale li nga xamante ni si moom mooy seen i yiite te comme ci loolu nga nga taxaw. donc ñu duñ mën a def lu la remercier. Mm. di la wax aussi rek bonne continuation te ngeen xam ne aussi yéen presse bi vous vous jouez un rôle essentiel aussi ci lépp loo xamante ni si rek am na Sénégal. Mm. que muy euh, mbégte que muy quand même euh, safaan ba. donc euh, nanu jiital toujours objectivité bu ko defee rek incha allah dans l' ensemble. Euh, vraiment euh, solution yi nga xamante ne si euh, moom la ñuy wut yàlla yéwénal na ko. Ah incha allah ban mën ko concrétiser. Ah, donc voilà. jërëjëf merci beaucoup may Dora ma gërëm la bu baax Gora. Uh-huh. ndax it da nga def liggéey ba am solo xam nga tey nga jóge Sénégal nekkoon ci média. Uh-huh. nga continuer ay milliers de kilomètres génn Sénégal continuer nekkaat ci média bi. Uh-huh. loolu tamit ngëm-ngëm lam te bëgg tout le temps information di jàll parce que ni ko Ndiogou waxee information dafa am solo ci doomu ndax information mooy indi sensibilisation mm-hmm. mooy tax nga mën a xam tànk fi nga koy teg

télé bu bu Macky Sall di wax mu zappe c'est Diagne non. Eh, eh, waa jaañ moo doon wax lu dem non du du particulièrement du du man maay def. waaw bàyyi ma ak Diagne góor a bàyyi ma ak Diagne tuuti. Eh, dama ne parce que moom il faut ñu ko. Ndiogou gis nga yow. posture hmm. bi nga toogee. presque man aussi hmm. man laa foofu laa toogee xam nga mooy lan. mooy Sénégal hmm. jëm kanam rek Sénégal yokk jëm kanam nit ñi ko dëkkee yokk loolu rek moo ñu yitteel ñun ñëpp. te kenn ku ne. loo boo mhm. sañoon tey jii man fii ma toog tey jii bu ma sañoon damay toog Sénégal di ko fa mhm. def comprendre nga mhm. du ma génn sama réew mais boo demee ba nga xam ne jàpp nga ne yow ni nga bëggee dundee ah environ environnement bi ak li xew ci biir environnement bi du la ko may loolu moo la dal yow moom ma dal moo dal góor a loolu moo war a tey jii ñu toog fii Argentine de kil des milliers de kilomètres de Sénégal kon ñun ñëpp lu ñuy teel rek mooy defar man awma bokk du awma benn parti pris ci ci benn côté waaye li ma yitteel rek mooy mhm. Sénégal jëm kanam li ma mhm. yitteel mooy nit ñi ko dundee nit ñi nit ñi ko dëkkee mhm. kenn ku ne yokku yokku ba nga xam ne lépp loo yéene ak loo bëgg a def di nga mën a toog Sénégal def ko fa état bi jàppale la ci lim la ci war a jàppalee wala yow sa wàllu bopp en première personne première pa yow nga war a jóg taxaw takk sa ndigg def li nga war a mm. def après nag. boo mm. defee say droit après nga war a mën a mm. taxaw laaj say devoir. say loolu jàpp jàppale waaye waxewuma pour euh, noo xam ne dafa mel ne damay damay damay dingat suñu mooy suñu président de la république. loolu kenn du ko def waaye dafa am ku ne ci ligne mais mais nag boo nekkee ci média surtout nag média boo xam ne diaspora bi moo lay déglu. Uh-huh. Euh, euh, da ngay taxaw taxawaayu ambassadeur. Ah, dañoo annoncé woon ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu bokk ak ñoom jamono bi ñu ngi ci ligne bi ak ñun kenn ci téléphone bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw nga jox ñu ko ak fan ngi ñu woo. sëñ Gora ñu ngi leen di ziar bu baax Serigne Diop Lanus. Lanus sori nga. na nga ah, def Serigne Diop bu baax a baax. jërëjëf. di rafetlu émission bi macha allah. jërëjëf di avant loolu dañuy féliciter tout l'équipe bi nga xamante ne ñooy. Mm-hmm. Touba Argentine TV ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci émission yi vraiment. jërëjëf euh, tey dafa doon occasion boo xam ne dañoo seetaan gën a amaat kontante bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf. Euh, di siyaar tamit suñu soppee boobu nga xam ne génn muy moo Modou Mbacké DTV. vraiment ñu koy topp di ko seetaan bu baax a baax. liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko. jërëjëf ci Covid 19 bi waaye tamit di ko def ci émission boobu nga xamante ne mooy diisoo ñu koy topp macha am na solo trop. am na solo kay ci ñëw ci thème bi bu baax a baax di rafetlu contribution yi waaye tamit di eh, gën a waxaat sàmb bu baax ñu gën a objet ci émission bi maanaam ci ci ci débat bi nga xam ne moo ñu tax a jóg ah. yaakaar naa tey te euh, ah. ñu koy wax ñu gën ci delluwaat euh, ci immigration clandestine ah. bi nga xamante ne eh, yaakaar naa képp ku doon tey africain mm-hmm. eh, nga nekk ci dëkki tubaab bi euh, am nga lu la metti am nga gàcc tamit Eh, ci ci ni koy gisee. waaw loolu nag dañ koy mën a jàngat ci ci ci ci angle yu bëri. surtout mën nañu ko jàngat ci quatre angle yoo xamante ne. Eh, mën nañoo wax ne dañuy wax ne li ko waral eh, ak xëj na jéem cee trouver solution. Hmm. Oh, parce que du yomb xëj na. parce que tamit wax di yàlla neexul ci xol. Hmm. ku ci am mbokk ak ku ci amul mbokk ni koy gisee wala ni koy déggee. Hmm. day métti lool. Euh, mu doon loo xamante ne nag euh, du ñu ko wax phénomène dégg nañ ci biir débat bi sàmm muy wax phénomène. effectivement waaye dafa doon loo xam ne. day xaw a doy waar. c'est euh, trop daal waaw. allez-y allez-y ñu ngi lay déglu. ah waaw yéen a yéen a ngi dégg. ñu ngi lay déglu bu baax ñu ngi lay déglu waaw. waaw fi ñu bëgg a waxee rek mooy dafa doon échec boo xamante ne esec total la. ci suñu gouvernement yi mën nañ ko wax. Uh-huh. Euh, parce que tamit bu ñu bëgg a wax ne que ni la responsabilité partagée parce que ñun ñii kat ñun ñëpp tey jógee joge Sénégal dem dem dem bitim réew. Uh-huh. ku ci nekk tey mën nañoo wax ne am na lu la daq Sénégal. wala am na lu la naqari Sénégal wala lu tax nga génn fa te uh-huh. loolu day gën di pire. est-ce que dañuy toog seetaan. Mhm. Euh, wala est-ce que dañuy dañuy dañuy xool solution mu jeex fii. parce que tamit tukki neexul waaye tamit euh, dëkk ba nga nekk su fekkente ne te te tey la nga fa soxla amoo fa lépp. Mhm. vraiment xëj na bokk na mën nañoo wax ne li li li ëpp waral loolu lay doon. parce que bu ñu xoolee sous-région bi nga xamante ne immigration clandestine bi daf fiy am ci Afrique. Mhm. particulièrement day ñëw ci Afrique de l'Ouest. mën nañ ko lim. ci Afrique de l'Ouest kon loolu échec total la. total boo xamante ne suñu la. aucun programme boo xamante ne dañ kaa def. Mhm. pour pour jeunesse bi mën a toog. Mhm. Euh, euh, te ñi ñi ëpp ci jeunesse bi dañoo nekk ci secteur informel ñun mën nañ ci lim suñ bopp. Mhm. ndax li ñu daqe woon Sénégal ba tax ñu woon Sénégal ginnaaw. tey dafa gën a piir dafa gën a dogal na ñun dem nañ Sénégal ñaari yoon wala ñett. xool mais fa ñu bàyyi woon Sénégal wala ñañ fa bay woon dafa gën a pire. te loolu yëpp nag booy xool euh, da nga naan suñu état yi la. parce que nit ki nga xam ne dafa jóg dafa dañ koy jàngat ci ci ci ci ci côté yoo xamante ne dañoo war a xool objectivité mhm. bañ a xool euh, farfarloo surtout wala parti et parti politique ko kooku euh, effectivement damay dellusiwaat ne mbaa sàmb bii nekkul na tey ñun moo ñuy présenté suñu digg ak état bi ci Sénégal mbaa nekkul sàmb bii parce que ñu mel nii day bu fekkente ne ni ñu dégg ñuy waxee dina tax ba état yi li ñu war a xam duñ ko xam li ñu war a def duñ ko def mhm. parce que euh, yaakaar naa euh, euh, tey bu ñu xoolee tey ñi départ tey fii mu toll dem bitim réew dañoo wax ne ñi ci ëpp tey ay mool lañu. Uh-huh. nga xoolaat beneen côté bi muy ñi nga xamante ne ñoo jóge Kajoor. waaw jóge Bawol. Uh-huh. ñooy mooy mooy partie bi gën a sonn ñi nga xam ne dañu war a def benn analyse benn analyse boo xam ne bu objet. Uh-huh. ñu xool tey ci tey bu ñu nee tey monde rural bi. ñi fi nekkoon lan la ñuy dund. Mm-hmm. wala lan la ñuy lan la lan lañ doon jëriñoo. Mm-hmm. tey amatuñu ko ñu dem fekki ñi nga xam ne ñoo doon dawal gaal yi. Uh-huh. amatuñu la doon dunde amatuñu ko. Mm-hmm. tey mooy kii seet fu mu dem ak kii seet ku ko wettali. ndax ki jóge Bawol du mës a dawal gaal xamul ndox ki jóge Kajoor noonu. xamul ndox kan mooy dawal gaal. mool ki dawal gaal mooy mool. mool bi moo dem ba amatul la mu doon wut. léegi baal bo wala tey ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci secteur informel yi fa ñu nekkoon tey mën nañ ci lim ñu bëri mhm. tey bari na boo yoo xam ne dañ doon jóge Dakar ñëw di taaba taaba mhm. yor mille francs fexe mu doon deux mille deux mille boobu nga fexe mu nekk dix mille boobu nga fexe bu mu nekk un million nga def ko cantine wala nga def ko place nga jékki-jékki tey place boobu ñu yàq ko amatoo foo aw dëgg la nga gis ñenn ñu tey ñu gis ci tey ñooñu ñu gis beneen secteur bi ñu gis bi ñu ne la étude ay ñu ngi ci ñu am master mhm. ñoo xam ne dañ daan jàng ay mhm. étudiants lañu. Mhm. ñuy jàng ba def seen formation téye seen ay moom diplôme mënuñoo liggéey. Mhm. léegi ñooñu ñëpp nag bu ñu tasee ki nga xam ne tey xam na gaal wala xam na géej. muy mël bi nga xamante ne tey exemple laa lay jox. daf day day def quinze jours wala dix jours ci biir géej. kooku pour mu pour mu dawal gaal gi du ko du du ko jaaxal. léegi nag bu tasee ki nga xamante ne bëgg na fu mu teg. ak ci bëgg ko wettali. pour ñu ànd day yomb. day yomb c'est ça c'est parce que donc dañuy dañuy dañuy dem ba. Ah. jeunesse bi. waaw dootuñu am espoir. dootuñu espoir et puis voilà foofu laa bëgg a ñëwee. dañu am espoir et puis jeunesse bi dañoo perte dañoo perte ci côté bépp. Mhm. tey suñu suñuy wax ne dañoo perte repère mooy euh, amatuñu yaakaar ci ñu ñu jiite. Mhm. parce que suñu xoolee lii am rek tey euh, xëy na duñu ñun duñu ay politiciens mais dañuy xool affaire yi dañuy dañuy analyse objectif tamit ki nga mhm. xam ne dafa amoon idole ci Idrissa Seck ci misaal laa lay jox. wala tey ci ñi ñu jiite ñu jékki-jékki dem ba jékki-jékki gis mu jedd li mu doon wëcc mu di ko lekk est que kooku dina toog ni kii tey su ma jiitee est-ce que dina dina dina defar. xam nga xam nga mooy mooy mooy li ma doon junj sànq ci commencement bi. waaw moo tax ma ne. waaw sëñ Samb nañu nañu émission bële passé leeral naa ko ci. que ni aussi ñun aussi ci côté boobu sama waa yi ñun aussi am nañ ci responsabilité. parce que bu fekkee ne depuis 60 ans ah ñun les mêmes têtes lañ ciy teg. à chaque fois bu ñu ñëwee élection ñu tegaat leen fi. ñu ñëwaat élection ñu tegaat leen fi. sama waa ji kañ la ñuy changé. ci biir wax la nga may mu tuuti ci biir wax ma wax ne est-ce que ñun dañuy bàyyi mu jàll. Uh-huh. wala est-ce que dañ koy xeex mu jeex une bonne fois pour toutes mu metti ci ñun. parce que mm. li naxoon suñu ay maam. Mm. nax suñu ay baay nax suñuy mag est-ce que ñun dañoo war a continuer mu naxal non. na nekk ci ñun et puis ñu prévenir loo xamante ne ci kanam jéem a doxal dama la jox benn exemple est-ce que dégg nga benn doomu Rwanda. bu mhm. ñuy wax tey. Mhm. ci tukki yi yëpp. déedéet nga ne ñu ne la bokk nañu ci gaal yi wala tey sax ñun ñu nekk fii tey est-ce que gis nañ doomu benn doomu Rwanda boo xam ne ñu ngi tasal teg moom. fii nii amu fii kay fi. ah Argentine yëpp tey Afrique même suñu président. Mhm. day jël misaal. wala muy jël ay initiative ci Paul Kagame gis nañ ci bi Covid 19 bi ñëwee mu raxasu mu dem raxasu wooyu te uh-huh. en tout cas. Uh-huh. le président Rwanda. Uh-huh. en 2014. mille deux mille neuf cent quatre vingt quatorze dix neuf cent quatre vingt quatorze lañ nekkoon ci guerre civile. yàggul dara entre dix neuf cent quatorze ak que dëkk bi dafa raase. entre deux mille ak deux mille deux mille ñu tey ñu ne képp kuy jëlati misaal ci Afrique. léegi da ngay jël euh, Rwanda. am nañ seen ay compagnie ko am nañ seen ay téléphone usines yu defar ay téléphone am nañ yeneen ak yeneen mm-hmm. mais ñun pourquoi ñu du ñu jël euh, politique bu objet boobu nga xamante ne tey ni Rwanda def ba ñuy jël misaal ci moom ñoom ñu jéem ko loolu en tout cas débat bi am na solo développement la rek ak politique d'industriel boo xamante ne tey dañ ko war a def pour téye ndaw yi tey ndaw bi nga xamante ne man sama sama exemple man mm-hmm. sama place laa yoroon yor sama métier uh-huh. Sénégal di ci liggéey mosumaa liggéey beneen liggéey bu dul sama métier moom laa xam. Uh-huh. mais li ma baqee Sénégal li tax tey ma bàyyi ko ñëw fii. Uh-huh. Euh, parce que état ñett yi la war a amal nit. Uh-huh. nja wala la war a njëkk a defal nit ki nit ki doxal boppam. muy justice. buñ la tooñee nga yaakaar a dem ci justice. xam ne boo buñ la tooñee nga yaakaar faa am dëgg mais bu fekkee buñ la tooñee da nga naan duma am dëgg. Euh, loolu baaxut muy justice éducation santé insuffisance alimentaire. muy dund bu yomb mais tey bu ñu xoolee suñu dund bi nu mu seere tey hmm. ci ci ci ci ci ci ci sénégalais de lambda bi hmm. ak tey tey autorité sénégal yi maanaam vie d'état bi mu seere hmm. loolu da ngay xam ne ñoom ñi ñu jiite ak ñi jiite sax day am foofu benn kii boo xamante ne euh, day xaw a doy waaw mais bég nañu bég nañu bég nañu bu baax a baax a baax ci sa contribution bi am na solo <laughs> waaw xam naa liñ ci bëgg a wax bëri na dañ doon félicité rek di di di félicité waale vraiment Gora Seck ñu uh-huh. suñu suñu xarit uh-huh. di rafetlu bu baax a baax liggéey bi et puis tamit ndax tey yu mel ni am na solo yeneen a ñuy jëriñ ci dëkk bi et uh-huh. tamit comme ni ñuy gisee des fois Moustapha jaar bi waa ñee jaar bi ñeneen ñi jaar bi loolu tamit def ñuy def ñuy def dimbali ñun ñu nekk fii ci Amérique latine di tax jafe woon nañu mhm. ñuy bëgg ñuy waxtaane wala ñuy bëgg ay solution te duñ ko am kon vraiment dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di jégalu ci guddal gi nag parce que guddaloo guddaloo lii lii ah, lii li mel nii guddaloo ah, waaye lu mel nii moo tax Touba TV jóg ngir informer Sénégalais yi li nga fi nga xamante ne kenn ku ne bëgg nga sa baat yegg fa te munul te munoo fexe mu yegg fa nga jaare ci à travers TV waaw benn affaire uh-huh. ñu xool ñu mm-hmm. ma jeexal foofu ñu xool lan moo waral tey nit ñi di songu gaal yi uh-huh. parce que bu fekkee da ngaa bëgg ci tukki légal mm-hmm. dem ambassade duñ la may visa di nga uh-huh. joxe quarante mille wala cinquante mille bu dee ci ambassade Europe yi duñ la may duñ la delloo sa xaalis nga dem États-Unis cent mille francs duñ la mm-hmm. may duñ la delloo sa xaalis léegi nga gis ne nga gis ne tey tey mool bi tey defar na gaalam euh, doon dem ci gaal gi daan napp doon ci dund di dundal ay nit. Mhm. di yor ay famille dem ba mhm. loolu mënatu koo am tey ñëpp xam nañ ne nee nañ bateau yi nekk ci gaal gi yaakaar naa am na ku ko fis lu ñëwoon bu ñu wax loolu mais léegi tey mool yi ñoo dem ba ko seen bopp. Mhm. kooku noonu tey xamul tool amul tool mënul dem bay. mënul dem bay. lan la mën a def ci ci napp napp gi la xam. dem na ba napp gi mënatul am. ba tey bawol wala kajoor kajoor bi nekkoon ci àll bi tey état bi xoolut ndax ñoom war na leen a gëstu kooku tamit amut lu mu def. li mu mën a def mooy ñëw Dakar ñoom ñaar ñooñu bu ñu doxee ba tase ci am gaal. Hmm. ak ci am xaalis bu mu fayee dañuy ànd dem. effectivement parce que yaakaar a tas aussi yaakaar dañoo dañoo dañoo dañoo découragé ci ci suñu njiit yi parce que tey ku la ku ci taxaw ba nga yaakaar ne kii la rey tey day jëkki war la. léegi man man pour doo comprendre. Ah. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ñu lay gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax. wax dëgg yàlla yow sa dugg bi am na solo yow lii moom mënoo woon ñàkk bañ a dugg <laughs> wax lu mel nii wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi jégalu bu baax a baax ci wax dëgg yàlla waaw di bu baax di leen gën a encouragé jërëjëf jërëjëf nuyul ma nuyul ñu mbokk yi nga nekkal ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Touba TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di di di ñëwaat rek ci ci deuxième bi nga xam ne tey jii war nañ cee yëg mooy que ne Euh, lu war a lu xew ci semaine bi passé ndax. Mhm. émission bi góor émission bi bi ñu nekk dafa dafa dafa intéressant dafa intéressant bu baax xam naa njóogu. Mhm. njóogu ci ligne bi de dafa war sa kaw. waaw c'est-à-dire euh, il faut ma ma ma conclure ci mhm. premier point bi. Ah, waaw parce que comme ma position. Euh, de moom mooy ni ngeen ko waxee position état. Uh-huh. pour de pour pour euh, démontrer wala défendre uh-huh. euh, la position de l'État ci problème yi am Sénégal donc premièrement uh-huh. premièrement defe naa ni mbir bu amee la première solution mooy hmm. d'abord ñun ñëpp ñu nangu ni mbir la moo xamante ni si jaaduwul d'accord nan ko nangu ba pare waaw waaye buñ koy wutal nag ay justification pour mhm. solution du am uh-huh. waaw bu ñuy wutal justification bëgg a justifier que ni borom gaal gi nga xam ne si amatul jën yu mu napp mhm. mënatul a napp ci géej gi léegi jël na gaalam dem dajeek ñoo xamante ni si ñoom it seen yaakaar tas na mu encaissé leen trois cent mille cinq cent mille ñu fëkk jëm Espagne wala euh, les côtes de l'Europe mais mais Ndiogou bu nu bëggee non non non bàyyi si li ngay wax waaye yow tamit. bàyyi si li ngay wax waaye tamit non non quand même. Eh, yow gaal mool bi nga xam ne non Ndiogou taxawal. non non non il faut ma laisser continuer xam ne dafa def jàng métier di dem bi chaque fois di dem bi ñëw di dem bi ñëw ba yàgg indeetul dara lan nga bëgg mu def ko. waaw dégg nga ma ne ma ne ma ne xam nga lan la. Euh, euh, je crois que Serigne Serigne Abdou Karim. Uh-huh. gis nañ vidéo bi mu def. jëmale ko ci loolu. waaw gis nga euh, ñun ñëpp ay nit ay doomi aadama lan d'abord. Uh-huh. Uh-huh. doomu aadama lan d'abord. waaw doomu aadama nag dafay xam ni doomu aadama la am na loo xamante ni si. Hmm. dépendrul ci moom. am am yàlla moo koy joxe. Mm-hmm. wërsëg yàlla moo koy joxe. Mm-hmm. yàlla nag daf ni nga sabablu. Ah, waaw mais nag sabablu waaw loolu mooy sabablu bi. waaw sabab lu mooy sabab lu mooy yow mu wóor la ni lii jaaduwul nga ni moom laay def nag pour am. mais bu fi loolu rek sësee nag. non non non lu fi lu fi sës amul na il faut ñu il faut que il faut qu'on soit responsable na ñu wax waxu responsabilité li am ñun ñëpp la metti tey am na ko tàggee plus de quarante personnes seen dëkk. di politicien comme man. Uh-huh. yaa ngi dégg. Uh-huh. ñëpp la metti mais aussi nañu utiliser la raison nañ teg politique fële nanu teg Macky Sall fee nanu teg lépp fee nanu jël la situation d'abord bu ko kenn homologué maanaam bu ko kenn wutal ay ay ay justification nan nan ko nan nan ko bannir ba pare uh-huh. buñ ko banniree ba pare nag mm-hmm. là maintenant nag ñu ñëw nag ci maintenant def loo xamante ni si ka nga xamante ni si mool ba dootul xalaat loolu. Mhm. ka nga xamante ne fii aussi moo ngi doon daanoo ko jug di xool njariñu ëllëgëm pour soutenir ses parents moom it dootul xalaat lii c'est ça l'objectivité. léegi nag état bi nga xamante ne fii tey solution nga nga jàpp ne ah. au niveau étatique ñëw ne état état bi nga xam ne si loolu moo koy yombalal mbir mi. Uh-huh. état loolu moo koy yombalal mbir mi. parce que état mënu la def programme pour bien faire. population bi di def le contraire vous avez donné l'exemple de de de de de de de, de comment ça euh, Paul Kagame. Mmh. le peuple rwandais. ak mmh. le peuple sénégalais. le peuple rwandais sacrifice lan def bàyyi lu bari ànd derrière leur dirigeants. Mhm. pour le développement de leur pays. ak réew yu bari yoo xamante ni si jaar nañ ci histoire bu terrible noonu la ñu def. Sénégal yàlla def na loolu de amagul te yàlla bu mu am. bu nu jaar ci ay des choses catastrophiques. Uh-huh. mais ne serait-ce que ne serait-ce que. ala mm. kuli Sénégal ala kuli al dina am gouvernement. bu mm-hmm. dee gouvernement koy jiite. Mm-hmm. kon nag sunu objectif sunu objectif mooy lan di accompagner gouvernement bi même bu fekkee dafay def ay erreur sax ñu ko koy xamal.